ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع ñu euh, fexe rek incha allah taala jàng lëf ci euh, xam-xamu tajwid euh, ndax li ngeen gis ci li ngeen gis ci écran bi naka la alladina aataynahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati tilaawati loolu loolu loolu loolu firi Fatou Kiné yes loolu nag boo boo koy jàng faatu fatimatu bintu ibrahim lan moo topp ci xaqa ha non non fat fat ibrahim fatima ibrahim are you here we don't hear you if you're here hmm. ibrahim sa téléphone sa micro mute hmm. booy jàng suratul baqara alladina ateynahum alkitaba yatluuna xaqa tilawati ulaika yuminuuna bihi maanaam ñi nga xam ne jox nañ leen téere bi ñu koy jàng niñ ko war a jàngee ñooñu rekk ko gëm ñooñu rekk ko la ci teg ñooñu rekk ko gëm te ci page bi su ma indi nañ ci waratilil qur'aana waratilil qur'aana tartilan waratilil qur'aana tartilan ah mooy booy jàng alxuraan na nga ko tartil na ko tartil dégg nga na ko tartil mooy na nga ko jàngee niñ ko war a jàngee na ko jàngee niñ ko war a jàngee niñ ko war a jàngee nag dafa war a dal dafa war a bi measure waaye dafa war a respecter all the rules war a tilil qur'aana tartiilan mhm. eh, téere biñ doon jàng fan moo doon aljazariya léegi nag dañoo toll foo xam ne ñu jàng ñu jàng téere bi ndax téere bu gàtt la balaa ñoo continuer bële danañu dimbale danañu dimbale ndax téere bi eh, ñu taalif te ki ko taalif dafa def Euh, ak leeral ne mi ko taalif ci nuun ak tanwin ak mudut te façon bim ko indee rafet na ba mu ëpp organisé na ba mu ëpp waaw ba mu ëpp hmm? nee na yaqulu raaji rahmatil ghafuuri dawman suleymaanu huwal jamzuuri hmm? Let me use Fatikini to read the translation for me. Praise he Sheikh, Sheikh Sulaiman bin Hussein Muhammad al-Jamzuri. Jamzur ab dëkk la bu ne ca Misra. soreewul ak tanta fi imam tantawee dëkk wax nañ ne moom sax tanta la juddoo ci weeru gàmmu atum junne ak téeméer ak juróom benn fukk lu topp gannaaw gàddaayu yonantu sallallahu ba mu am mille cent plus année ci la judd jànge na nag ci sëriñ yu bari waaye tajwid ak qiraatul mi ngi ko jànge ci kilifa gu siiw gu Nuruddin Almihi ko tudd sax ci introduction Nuruddin Almihi Nuruddin Almihi boobu nag ci la sax silsilaam ci wàllu jàng alquran jaare ci la silsilaam it jaaree ci ba ci imaam aljazari ndax mag ñi téere yiñ daan jàng sax dañ ci daan am ijaaza waaw soxna Fatima bint Ibrahim ngi lay woo sànq nekkuloo fi waaw ah, alhamdulilah loolu beneen xuloo la ñiy jàng ngay wér ah. donc téere bii danañu wax nim mu ko tuddee mooy tuxfatul atfal da alif na yeneen téere alfatxu rahman alfatxu rahman yi fi qiraati alquran mhm. mu ne alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala translation ana sama translator bi loolu moom of praise Allah eh, lii mu wax fii ci wolof pour ñiy déglu ci wolof nee na ki nga xam ne yërmande yàlla mi nga xam ne mooy jéggalaakoon bi rekk la yaakaar ba faw nag daw man ba faw suleyman aljamzuri di dëkk ba mu dëkk moom moo wax lan la wax alhamdulillah maa ngi maa ngi sant yàlla musalliyan ala muhammadin boole ci di julli ci yonent yàlla muhammad wa alihi wa man tala ak ay ñoñam ak képp ku ko topp wa baadu hada nadmu lil muridi fi nuuni wa tanwiini wal muduudi sammaytuhu bi tuxfati l atfaali an cheikhina almihiyi dhil kamaali arju bihi an yanfaca tullaaba wal ajra wal qabula wal thawaaba aha This part is for the one who seeks it, namely the students, regarding the letter Noon the nonation, and the rules of elongation. I have named it a gift for the children on the authority of our Sheikh Al-Mihi. Mihi. Mm-hmm, mm-hmm. the mm. perfect one, mastery in the art of tajweed. I hope with, it this poem that it benefits the students and I hope for reward, acceptance and retribution. MashaAllah. nee baadu boo déggee wa baadu mooy gannaaw bu ma waxee li ma wax ca gannaaw wax ci gannaaw mooy lan sant yàlla julli ci yonent bi kon wa baadu amma baadu la woon gannaaw gi lañu xewal wa baadu waaye arab yu njëkk xamuñu woon wa baadu amma baadu lañ xamoon gannaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nazmu bi nazmu mooy poem nasr mooy ludul poom maa ngi ko jagleel murid bi murid terme la bu ñuy utiliser ci kuy wut moo xam muy wut xam-xam moo xam muy wut yàlla moo tax da ngay gis Sidi Ahmed Tijaani ñun ñooy wax Tijaani waaye moom mosu tudd mosu mosu ñoo tuddee Tijaan nag moom moom murid la ñu doon tuddee murid waaw ah, murid nag comme mooy suñu sëriñ ñi ñuy waxee maliki malik mos a tuddee ay taalibe mi waaye taalibe mi dañ leen wax maliki wala ñu ne kii xanbali la imaam ahmad mos a tuddee taalibe mi la waaye comme ci ngiram lañ nekk ñu ne xanbali foofu la baatu tijaan yi jógee waaye booy seet jawahirul maani cheikh tijaan bu lay woo yow taalibe bi wala yow ki bëgg yàlla la lay woowee murid bi murid waata nga gis Cheikh Ahmad Bamba ni fa kullu wirdin yuridul murida wirda woo jël yow murid bi daf lay yóbbu ci yàlla li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila al jilaani moo xam wirda Sidi Abdul Qadir Jilani la aw intama li Ahmad Tijani wala wirdaw Sidi Ahmad Tijani aw li siwaahuma min al aqtaabi wala kulul ñoom ci qutb yi id kulluhum qataan ala sawaabi ndax ñoom ñëpp ci njub lañ nekk waaw ah, kon taalibe bi jàng moom laa defaral téere bi téere sii fi nuuni ci attey nuun wa tanwiin ak attey tanwiin tanwiin mooy nunation nuun mooy baat nuun guñ sukkoon la bëgg a wax rek wa tanwiin ak ñaari maska muy fatxatayni kasratayni dammatayni wal mududi ak maddi yi moo xam madd bu gàtt la wala madd bu gudd la mu ne nag maa ngi ko tuddee kado xale yi kado xale mu ne li ma ciy jàngale yëpp nag maa ngi ko jëlee ci sama sëriñ al imam al mihi al imam al mihi waxoon naa al mihi nu mu tudd wax naa sànq léegi nag damay commencer di exiger suñuy jàng seeti ñu am ñu am cahier de notes wala carnet de notes wala notebook nuuru diin la tudd nuuru diin almihi lil kamali kay boromuk mat mooy ki nga xam ne xam-xam bi may jàngale moo ci amuk mët maanaam am na ci mastoy mu ne maa ngi ñaan nag maa ngi yaakaar ne dana jëriñ jàngkat yi taalibe yi maa ngi cee yaakaar it dégg nga yool ak yàlla nangu ko xabool bii nag bu am solo la parce que xabool façon gu boo xam ne bu la ko yàlla nangu looyee sa dafay tax ñëpp xam ko dafay tax ñëpp bëgg ko dafay tax ñëpp jublu ko waaw seetal seetal loolu wa sawaaba ak ak fay bëgg naa yàlla fay ma ci de waa ci mbaaxam bëgg naa mu jëriñ taalibe yi bëgg naa it ñu wut ko ñu jublu ko pour mu jëriñ leen moo tax néew na fooy dem euh, te doo fekk téere bi ndax yàlla daf ko jox xabul yàlla def ko jox xabul yàlla daf ko jox xabul ndax ñu bëri taalif nañ ci lii waaye yàlla def ko jox xabool ni mu joxe imam Jazari xabool mhm. dégg nga fii nee borom téere bi wax na la daanaka lim bëgg a jàngale ci téere bi muy ahkaamu nuun as sakina ak tanwin ak mudut li muy njëkk jàngale nag mooy axkaamu nuun ak sakina ak tanwin borom xam-xam yi dañuy wax ne boo xamee axkaamu nuun ak sakina ak tanwin li ëpp ci xam-xamu tajwid daanaka xam nga moo tax lu mët bàyyi xel la ndax amul benn baat booy jàng ci alquran lu dul ne am na rapport ak nuunu sakina ak tanwin amul benn lettre bu nekk ci alphabet bi lu dul ne sukkoon nuunu nuun gu ñu sukkoon jiitoo mbaa tanwin dafay def effet dafay tax nañ koy jànge dégg nga wuute mbaa nuro ak nañuy jànge beneen xaraf hmm? waaye boo xoolee xaraf wu yooyee ñooy def effet ci nunu sàkkina bi ñooy def effet ci tanwin bi maanaam noonu sàkkina saa yu jiitoo benn lettre wala tanwin jiitu benn lettre lettre ya ñu jiitu ñoo lay wax noonu sàkkina bi ndax danga koy jàng mu normal wala doo ko jàng mu normal soo ko jàngut mu normal nan nga koy jànge moom lay wax ne lin nuuni wala ahkaamu nuun saakina wa tanwin rules of nuun saakina and tanwin lin nuuni in taskun walitanwini arbau ahkamin fa xud tabini translate for the letter noon in its unvoweled state and the tanwin have four rules so take my clarification tan gis nga sukkoon moom la tuddee unvoweled state maanaam mooy absence of vowel parce que li ñuy tuddee vowel fii ñoom mooy fatha kasra damma wala fatxatayn kasratayn dammatayn lu tax nag sukkoon ñu koy tuddee sukkoon mooy gis nga dafa mel ni ab zéro rek mooy de no vaaxu dégg nga tanwin lu tax muy am atey noonu sakina ndax san sanwin sawnu nun la am baa boo boo boo ci defe ñaari fatxa looy wax ban ici ban waaw you see ban if you cut the ba what you have the na nun saakina moo tax tanwin dafay am ati nun saakina ndax tanwin mooy firi nuunal nuunation hmm? mooy nuunation maanaam dafay joy jox sound nuun at the end ba nga am fatxatayn mooy ban nga am kasratayn bin nga am dammatayn mooy ha nga am damma bun masha allah léegi nag nee na saa yoo gisee noon mu am sukkoon mbaa tanwin xamal ne am na ñeenti atte yu lay xaar benn ca atte yooyu la ñuy ci noon bi walla ci sukkoon bi depending on what letter or which letter comes after hmm? mm-hmm. saa yoo gisee nuun sakina wala tanwin mu précède a letter that mu précède a letter before any letter comme par in jaa wala in qaala wala nangam in nun sakina wala tanwin whenever you see them before a letter there are one of the four rules that are to come to apply saa yoo gisee nuun saakina wala tanwin before a letter benn ci ñeenti rule yi ñu lay jàngal mooy apply donc nag depending on which category mm-hmm. that letter belongs we read the nun sakin or tanwin maanaam lettre bay topp bépp maanaam saa yoo gisee nuun gu am sukkoon wala tanwin leetar ba topp ca nuun saakina wala tanwin ba mooy déterminer nan la ñuy liiree nuun saakina ba wala tanwin ba ndax dañ koy liir mu feeñ wala duñ ko liir mu feeñ ndax dañ koy liir carrément wala duñ ko liir carrément suñ koy liir carrément amut problème suñ ko liir carrément nan lañ koy liire léegi nag loolu la la bëgg a wax ne nuun saakina ak tanwin ñeenti atte ñooy ñoom la ñuy appliqué ci ñoom there are four rules which are to apply on every nun sakin or uh, every tan on rule yooyu bu njëkk ba mooy izhar nun sakina benn ñu liir ko mu feeñ kenn du ko nëbb yaa ngi dégg ñaareel ba mooy idgham idgham mooy nuunu sakina bi dañ koy seeyal wenn ñu seeyal ko mbaa tanwin bi ñu seeyal ko dégg nga ñeenteel bi ma dem ci ñetteel bi ma wax ko ba ñu soog a dugg ci woy bi ñetteel bi mooy iqlaab mooy nuun saakina bi wala tanwin bi au lieu muy muy muy saamu nuun saakina wala tanwin léegi dafay dañ koy jàllar bi dañ koy jàllar bi mu mel ni miim la bu am xunna am na lettre buy topp ci moom day tax day tax nuun saakina dootu sound like a nuun saakina it sounds like a nuun like a mim with ghunna mooy iqlaab waaye iqlaab oh. ñeenteel bi mooy ixfa ixfa mooy nuun saakina wala tanwin am na lettre yoo xam ne buñ toppoo ci ñoom dañ leen di nëbbu nuun saakina bi du feeñ tanwin bi du feeñ kon nuun saakina wala tanwin benn ñu feeñal leen wala ñu seeyal leen wala ñu wëlbati leen wala ñu nëbbu leen dégg wax ji mhm. nuun saakina wala tanwin foo leen gis ci biir baat yi lettre bay topp ci ñoom mooy tax ñu feeñal leen mbaa mhm. ñu seyal leen ca leetar booba mba ñu wëlbati leen dootuñu saawun laay ka nun saakina waaye miim la ñuy saawun wala ñu nëbbu leen carrément waaye buñ nëbb day ànd fi baat yi ñu leen di nëbbe hmm? mooy nëbb mooy nëbb yaa ngi dégg leer na wala leerut nee na fal awalul idhaaru qabla ahrufi lil xalqi sittin rutibat fal taarifi hamzun fa haaun thumma aynun xaau muhmalataani thumma ghaynun xaau the first is what idhaar before the letters of the throat which are six that are arranged in order so be what huh? being acquainted familiar familiar with with them ñoom ñooy lan hamza ha ayn ha ghayn kha bu ne muhmalataani mooy ñaari mooy ayn ak ha amul tomb hamza fa then ayn ha hamza fii hamza ha la war a bi translation bi fi baaxul ok hamza ha fa ha fa bi mooy ak topp rek hamza hamza fa ha topp ha hmm? moom dafa dafa am xam naa kii de frappe hmm? déedéet boobu bokkul oh, bokkul bii haa bii hamza ak haa ayn ak haa ghayn ak xaa Mm? Got it. All taani hmm? dégg nga gis no fatha no kasra no damma bi tamit it's not uh, translation bi is not that ok lii mooy no point on them maanaam ayn ak xa muhmalataani yu amul tomb suma xaynun xaa mooy yu am tomb loolu rek la bëgg wax mm. yaa ngi dégg kon gis nga juróom benni maanaam léegi let's try to apply this parce que damaa bëgg lu ñuy jàng maanaam juróom benn lettre yii rek kese kot dong ñooy topp ci nuun saakina wala ñu topp ci tanwin te duñu affecté nuun saakina bi wala tanwin bi izhar mooy lan ah feeñal ah izhar non mooy feeñal firiwu ko waaye mooy feeñal rek maanaam to make something apparent seen hmm? yeah. dégguma mooy feeñal rek maanaam nuun masque maanaam eh, booy boo boone miin boo nuun bi feeñ na wala feeñut feeñ na boo an nuunu tanwin bi feeñ na wala feeñut léegi nag loolu feeñaay boobu la wax ne dafay nekk tànk juróom-benn lettre yi ñoo topp ci moom yaa ngi dégg xaw leer na am déet ok let's say yaa ngi jàng man amana man amana nun bi feeñ na wala feeñul feeñ na nest lu tax mu feeñ parce izhaar mooy feeñal parce que loolu lan moo tax izhaar am fii la ñuy wax léegi dootuñu waxati izhaar moo ko feeñal. dafa am dafa am dafa am xaraf wu ñëw tax moo tax dafa am xaraf wu ñëw def ko izhaar. Hmm? alif bi hamza bi amana hamza nga wax. ah amana man amana gis nga noonu sakina bi hamza moo ci topp moo ta doo wax ne ma man ngay wax right dafay da nga maanaam nuun sàkkine bi da koy liir mu leer nañ ñi ndax xaraf wi ci topp mooy hamza man amana man amana billahi wal yawmil axiri mathalan hmm? kullun amana kullun amana bu ngeen jàngee jàng ngeen amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal kullun amana gis nga kullun tanwin bi feeñ na ci lam lu tax lu tax waxuloo kullun amana lu tax waxuloo loolu kullun amana léegi lu tax nga feeñal ko fii kul ah, hamza bi ñëw gannaaw tanwin bi kullun mm. amana moo tax hamza boobu moo feeñal tanwin bi kullun amana ok Mm. min minhum minhum xam nuun bi tanu eh, sukkoon bi dafa feeñ wala feeñul ah lu tax mu feeñ haa bi topp ci hamza ci bi haa bi topp ci nuun sakina bi moo tax nun bi kenn du ko nëbb dañ koy feeñ minhum man haajara man haajara man haajara nun saakina bi feeñ na wala feeñul man haajara lu tax mu feeñ haa haa bi xarfu la haa bi moo ko feeñal man haajara ok jurufin haarin ci sóoratu tawba jurufin ala shafa jurufin haar jurufin haar lan moo tax lan ah, bi feeñ na foofu day feeñ wala du feeñ day feeñ lu tax haa bi topp ci tanwin bi xarfu izhaar la xarafu feeñal la haa bi xarfu idhaar la ok na léegi an'amta booy jàng faatiha la nga wax an'amta wala an'amta an'amta da ngay feeñal nuun bi right lu tax nga koy feeñal déedéet déedéet déedéet déedéet ah ah ah non non non non an'amta amza bi déedéet parce que baat bi jiitu nuun saakina bi taxul ñuy wax de nuun saakina balaa nga balaa ko lettre di affecté daf koy dafay fekk lettre bi ñëw gannaawam lettre bi ñëw afta mooy affecté pas lettre bi ñëw avant so boo gisee Hamza before noon sakina that Hamza doesn't do anything to nun sakina okay mm-hmm. when we talk about we say nun sakina before a letter tanwin before a letter not after a letter okay so bu fekkee ne lettre bi moo jiitu nun sakina bi wala moo jiitu tanwin bi loolu taxul ñuy wax atte yi ñuy wax nii dafay fekk nun sakina bi wala tanwin bi jiitu so fi mu ne when you when we're talking about Hamza, but Hamza doesn't play here. When you say an amta, why nun sakina is clear, is straight? Because ayn is a izhar letter. wax na fa hamzun fa haun thumma aynun. ok an amta doo wax an amta. Mm-hmm. ayn bi moo feeñal nun bi. ok. Mm-hmm. min mm-hmm. ama ah go ahead. Um, loolu loolu yes ñaar yëpp baax na. Maliki moo gën a sax bari Maliki. jàngkat yi jàng Maliki ñoo gën a bari booy fukki jàngkat yi fukki njàng ni ñi jàng Maliki ñoo gën a bari ñi jàng Maliki waaye ci suñ jamono Maliki moo gën a siw ndax ñiy jàng uh, Asim moo gën a bari. Hmm. ñiy jàng Asim moo gën a bari riwaayatu Hafs an Asim. moo gën a bari hmm? boo ne maliki yow mi diin mooy buuru bés penc bésu fay ba boo ne maliki yow mi diin mooy ki moom bés bësu bésu fay ñaar yëpp benn ñaar yëpp même signification maliki nag moo gën a yaatu maliki waaw boo joxee boo waxee maliki maanaam mi moo gën a yaatu boo waxee <laughs> maliki yool bi moo gën a bari waaw parce que am nga plus de lettres te bu nekk am nga ci fukk mhm. waaye boo ne maliki nag maanaam yi moo gën a yaatu ah, parce que bépp képp ku moom bépp buur moom na te du moom di buur yow du yaa ngi téléphone mhm. moom nga téléphone est-ce que tax na ngay buur kon buur maliki moo gën a yaatu maliki mhm. ndax bépp malik bépp malik bépp malik malik la waaye bépp malik du malik Hmm? Malik mooy ki moom. Malik déedéet déedéet moo gën a gàtt ci xaraf waaye moo gën a yaatu ci maana mooy buur Malik mooy buur. ma Malik nag bu dee yool moo gën a bari yool ndax moo gën a bari xaraf waaye mu ko ëpp maana waaye ñaar yépp nag alxuraan la ñaar yëpp baax ñaar yëpp ci yonent bi lañ ko jële mm-hmm. hmm? boo ne maliki yawmi mooy the king of the day of judgment maliki yawmi the owner of the day of judgment every king is an owner but not every owner is a king ok ñu continue min uh, uh, ok man amila man amila salihan fa li nafsihi man amila man amila uh-huh. an ana xarfu izhaar bi fi lanoo tax ñu lanoo tax nun bi feeñ ah ayn ayn bi ñëw gannaaw moo tax nun bi feeñ kor ayn is xarfu izhaar man amila salihan fa li nafsihi ok xaqiqun alayya wala ala ñaar yëpp baax na xaqiqun alayya an laa aqula wala an laa aqula ala allahi illa alxaq waaye ñaari baat yi daa ko fekk suratul arab xaqiqun alayya qun ngay wax wala qun ngay wax ah xaqiqun lu tax ayin bi moo ko feeñal ayin bu ñëwee rek tanwin bi dootul na booti noonu sàkkina dootul na booti macha allah macha allah ah, loo teg hamzun fa haun thumma aynun ha xaa u xaa ñeenteelu xaraf bi mooy xaa ok la ci xool nan lañ fan la ñuy dem ci alquran tanxituuna tanxituuna min aljibaali buyutan tanxituuna tanxituuna lañ wax wala tanxituuna tanxituuna waaye xaa bi xarfu idhaar la macha allah xaa xarfu idhaar la bu toppee nuun saakina nuun saakina bi dafay feeñ kenn du ko idgham kenn du ko ixfa kenn du ko iqlaab ok alimun ok banaan banaan tanwin bi xaar beneen tanwin balaa ma dem beneen sukkoon min xakimin tanzilum min xakimin min xakimin xaa bi moo tax nun gi dafay feeñ ok how about min xakimin xamidin <laughs> yàlla dafay wax ci alxuraan caaxaan du ko dikkal ci benn wet ndax ci yàlla la jógee yàlla mu xeriñ mu santu mi xakimin xamidin dañu ñëw xakimin xamidin wala xakimin xamidin lu tax tanwin gi di feeñ because the ha ha is harfu idhar alimun xakimun nag alimun xakimun hmm? ah same thing ha bi moo tax tanwin bi ci miim gi dafay feeñ macha allah macha allah ok lu ci topp hamzun fa haa'un thumma aynun haa'u muhmalataani mooy lan Allah wax ne loolu firi muhmalataani ni ko waa ji firi wax naa ne baaxut ah? hmm? ah, waa ji ni mu ko firee ni maanaam lacking what lan la wax lacking what lacking the diacritical marks. That's not true. True. Lacking the dots la war wax maanaam ayn xaa daf la bëgg a wax ne ayn ak xaa bii may wax nag bokkul ak xayn ak xaa maanaam arab bu waxee ayn dafay wax ayn muhmala ñu xam ne ayn bu ñu tombul lay wax wala mu ne xaa muhmala ñu xam ne xaa bu ñu tombul lay waxul xaa kon juróomeel bi mooy ghayn right thumma ghaynun xaa'u ghayn ok ghayn ban ban ban ban ban ngeen may jox ban misaal ci nuun saakina ak ghayn ah waxaat ko luy loolu waxaat ko déedéet maanaam noonu li nga wax leeru ma xaw ma comprendre ma maanaam mis mithaalu mithaalu xëyin ci nuun saakina xëyin bu topp ci nuun saakina ci biir alquran gafurun rahim noonu nuun saakina bu topp ci nuun saakina mënul commencé xëyin xëyin bi fokk nuun saakina jiitu ko baat bi mënul mënul commencé xëyin wala eh, foog nga am nuun saakina balaa nga indi xëyin xayin bu nuun bu am sukkoon jiitu xayin hmm? bu am nuun bu am sukkoon xam ne am sukkoon a ko jiitu uh, ok let's say go to suratul isra fasayun ghiduuna ilayka ru'usahum yes aha uh-huh. is it time fasa hmm? yungiduuna ngoog fasa yungiduuna fasa yungiduuna xayin moo topp ci nuun saakina bi ah fasa yungiduuna ilayka ruusahum wala min xillin min xillin min xillin hmm? ñu may woo pour euh, julli may leen ma quelques minutes rek ma ñu julli incha allah ñu mottali euh, bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala mawlana muhammadin ñu ngi woon ci xayin ok xayin bu fekkee ne nuun saakina daf ko jiitu nuun saakina bi dafay feeñ bu fekkee tanwin daf ko jiitu tanwin bi dafay feeñ joxe woon naa benn misaal fa yu lan la ñuy wax fa yungiduuna la ñuy wax wala fasa yungiduuna kon maanaam nuun bi dafay feeñ mm-hmm. lu tax parce que xayin xarfu idhaar la kan moo mën a jox beneen beneen xaraf beneen lettre ci alquran beneen baat laa bëgg a wax aw day nin waaw tanwin la macha allah bu dee ci tanwin day tanwin la xayri dafay feeñal dafay feeñal tanwin bi kenn du wax aw day nin hmm? macha allah aw day nin mudaar xayra uh, bu fekkee ne ca suratu nisa xayru hmm. mudaar wasiya min allah uh-huh. macha allah loolu mooy tanwin bi mais nuun sàkkina bi laa wax hmm? nuun sàkkina bi amuloo beneen baat nuun xarisun lu ci topp ah non non azizun alayhi nga eh, azizun alayhi mais boobu ayn la ñu ngi ci xayin fi mu ne boobu te boobu tanwin la azizun alayhi boobu baax na bu dee tanwin ak nun ak ayn si gët waat léegi we are doing ghayn we're doing ghayn okay who can help who can think think think think think okay même nun saakina bi sax joxe woon naa beneen dafa amoon beneen baat man sànq avant may dem bu dul fa sa yoon rëy duuna bi am naa beneen baat bu ma joxe woon. min xillin waaw kay min xillin wa nasana wa nazana ma fi sudurihim min xillin waaw nuun saakina yàlla nee na yowmal qiyaamati baña bañante amu fa ajana bañante amu fa su fa amoon du neex di Euh, lii lii tax ngay ngay bañ nit dañ koy dindi dañ koy dindi tax ngay fiir dañ koy dindi lii tax ngay añaan dañ koy dindi li tax ngay wax wax ju sew dañ koy dindi laa laxwun fiha wala ta'thim jëf ju sew amu fa hmm. kon ñu dem euh, bu dee tanwin nag ay ca tanwin am na am na benn ba am na ko waxoon benn baat léegi tanwin before ghayn kan moom mooy mën a jox beneen baat ah? ban la ghayn lañu wax ghayn bi nga wax ayn la ghayn mhm. mhm. mhm. am nañu am nañu ci suuratul Isra xaliman ghafuran xaliman ghafuran xaliman gafuran foofu xayin boobu après tanwin la dafay tanwin bi dafay feeñ xaliman ok the last one is what xo xo hmm? fa in xiftum macha allah macha allah fa in xiftum fa waaxida ñun de ragal lañu <laughs> ñun ba ñeent incha allah. moom xar bi rek nga bàyyi buum bi. waaw waaw ragal la ñu ñi ragal la wax ñi eh, fa ankixu ma taaba lakum min annisaai mathna wa thulaatha wa rubaa fa in xiftumu alla taadilu fa waxida kon ghayn ñëw na ah, xaa fa in xiftum kan moo am ci yéen beneen baat Fatima indi na benn baat Hmm? xurrimat aleykum almaytatu waddamu wa laxmu alxinziiri wa maa uhilla nan la waxeeti wa maa uhilla li gayri llaahi bihi lu ci topp wal ah wal munxaniqatu wal munxaniqatu nuun saakina before xa ok wa maa tafaalu min ah min xayrin nun saakina bi foo xaa hmm? léegi tanwin bi foo xaa nag boobu moom yomb na hmm? <laughs> ayca tanwin bi foo xaa ce waay uh, inna allaha latifun xabir tanwin bi foo xaa latifun xabir fun dafay feeñ ndax xaa bi xarfu idhaar du noonu kon xurufu xalq yi ñooy juróom benni xaraf yi nga xam ne du ñu affecté wat lan lañ dul affecté duñu affecté tanwin duñu affecté tanwin ak lan ah ak nuun saakina mhm. But these rules applies to tanwin and nun sakina when when the tanwin comes after or before these letters before G is like this so lettre yii duñu tan duñu affecté tanwin yi rek nag ñoom rek kese kese kott dong ñoom ñooy bàyyi tanwin saakin tanwin ak nun saakina ci seen sago donc saa yoo gisatee nun saakina ci alxuraan wala tanwin nga xool lettre ba ca topp du lettre hamza du ha du ayn du ha du ghayn nga daal di liir tanwin ba wala nuun sakina ba liir bu normal yaa ngi yàq xaw ma dégg ngeen maam déet hmm? what did say Fatima Ibrahim hmm. yaa hmm. nga liir nuunu sakina ba fekk danga ko liir before tanwin yaa ngi yàq déedéet xama loolu de nuunu saakina ak benn lañu ok lu ma wax ci nuunu saakina rek it applies to tanwin ok dama ne saa yooyu jàng alxuraan nga gis tanwin wala nuunu saakina before any letter other than these six tanwin ak nuunu saakina soo leen liiree liir bu normal yàq nga yàq nga waaw liir bu normal maanaam boo tanwin boo boo boo amee par exemple fa nga def ci tanwin ka fatxatayn wax fan boo amee nuun wala maanaam hamza kasra nuun sakina looy wax waaw nga hamza kasra ak nun saakina nun saakina rek laa soxla waaye dama soxla benn lettre avant in du in ngay wax boo noon boo amee hamza nga kasra ko nun bi ci topp am sukkoon lay wax du in nag in boobu moom ngay wax maanaam nuun boobu sukkoon bi ci nekk da nga koy liir comme mu nekk nuun sukkoon ak mu normal in mu normal bu dee hamza moo nekk ci fatha moo nekk ci par exemple euh, fatha moo nekk ci hamza bu fekkee tanwin bi fatxatay na da naan an bu normal maanaam tanwin bu normal boo koy wax nuun da ngay da ngay sound a e, e, nuun sound at the end right nuun sàkki boo koy wax da ngay sound a e, nuun da ngay da ngay da ngay sound a nuun sound um, at the end right léegi nag de nuun nuun sound at the end boobu yaa ngi koy jàng bu fekkee ne juróom benn lettre yi ñoo topp ci nun saakina wala ñoo topp ci tanwin waaye bu fekkee ne beneen lettre bu dul juróom benn yi ñoo ci topp boole mënatoo lire tanwin liir bu normal mënatoo lire nun saakina liir bu normal soo ko liiree comme si de rien n'était yaa ngi yàq maanaam baat ye lettre yay topp danañ affecté tanwin bi waaw non non dama bëgg lii leer te idea dama bëgg mu leer après li baat yi ci topp yëpp dafay exemple lay doon maanaam dama bëgg li mu bëgg li ma dama bëgg mu leer balaa ñoo joxe exemple maanaam dama ne saa yoo jisee tan tanwin wala nuun bu am sukkoon yaa ngi leen di liir liir bu normal bu fekkee ne juróom benn lettre yi ñoo topp ci ñoom ndax lu juróom-benn lettre yi nuñ tudd lettre lan feeñal mooy ñoom tanwin ba nañ ko war a jàngee dañ koy feeñal ñu jàngee ko noonu noonu sàkkine bi nañ ko war a jàngee dañ koy feeñal ñu jàngee ko noonu su dul nag lettre yi ñoo topp ca yooya yeneen lettre a ca topp benn tanwin bi dañ koy nëbb wala tan tanwin bi dañ koy idgham wala tanwin bi dañ koy iqlab maanaam Euh, li ma idée bi mu bëgg a wax mooy tanwin bi dootuñ ko liir liir bu normal nun sàkkina bi dootuñ ko liir liir bu normal déedéet waxuma duñ ko feeñal waaye dama ne rek dootuñ ko liir liir bu normal waaw comme ça <laughs> waaye loolu sax duñ ko feeñal sax waaye lan lañ koy def duñ ko feeñal bi tamit baax na waaye bu bu ma ne duñ ko liir liir bu normal dafay tax saa yoo gisatee tanwin nga gis la ca topp duha saa yoo gisatee nun sàkkina nga jis la ca topp duha du hamza du ayn du xaa du xayn du xaa kon dafay tax nga bàyyi xel ne ah lii kat mënu ma liir kon liir bu normal nan laa ko war a liiree loolu mooy li ñu war a jàng ni ko war a liiree kon benn ci ñetti atte yi di ñëw la idgham wala ixfa wala iqlaab yaa ngi dégg man dama gis ci benn benn livre euh, clarifié lii nii euh, izhaar bi mhm. dama gis ñu boole ci six six lettres yi ñu boole ci alif alif mooy hamza alif amul yaa ngi dégg alif mooy hamza mm, yaa ngi dégg alif mooy hamza mooy hamza waaw cest dire que arab booy jàng arab académique bu ñu waxee alif sax ñu ngi ciy jublu alif boobu nga xam ne dañ dañ koy dañ koy utiliser rek pour pour wasl pour connexion euh. yaa ngi dégg ñaanaam ñoom bu ñu ne alif rek mooy alif boo xam ne cekkant bi du ci nekk mooy alif boo xam ne mën nga koo bañ a liir mu ngi mel ni par exemple alif bi ci as-samad xam nga boobu boo ne qul huwa allahu ahad allahu lay wax samad gis nga li roo alif bi ñoom foofu lañ loolu la ñuy tuddee alif su fekkee nag hmm. alif bi foog nga liir ko mooy dafay am day am hamza ci kawam mooy tax boobaa doo ko mën a mu ngi mel ni ahad ahad loo mën a def da ko liir mënoo wax qul huwa allahu ahad mënoo wax qul huwa allahu ahad qul huwa allahu ahad moo tax alif boobu dafay am hamza ci kawam boobaa nekkatul alif hamza la. kon comme si walam kufuwan ahad. waaw boobu gis nga ahad bi foog ko. waaw. foog nga ko boobu hamza. hamza boobu ahad foog nga liir ko maanaam alif boobu ah, maanaam alif représentation hamza la bu ñu dindee hamza bi ci kaw alif bi dootul amati doole. moo tax moo tax ñu tudd hamza la ñu war a wax dégg nga même bu fekkee ne yenn baat yi dinañ tudd alif mais hamza rek lañ ci jublu dégg moo tax nga gis alif alif bu ñuy jàng xuruful idgham ñu boole ko ci xuruful jawf mhm. maanaam boobu ñoom alif foofu mooy li ñuy xëcc ñoom lañ ko lañ ko boole a mhm. wala i wala u a mhm. en général alif buñ ko waxee rek mu dafay woyof all right hmm? Hmm. moo tax nga gis léeg-léeg booy jàng alphabet bi nga gis ñoo xam ne dañuy wax alif ba sa ca fin ba ñu de wax ñu wax ha waaw yaa ñu waa ñu ne waaw hamza yaa uh-huh. parce que alif représentation hamza la hmm. leer léegi ñu ngi jàng tabbat yada abi laha biw ah abi laha gis nga lu tax parce que tanwiin la laha bin jeexe boo tabbat yada abi laha bin wa tabb nga xam nga kon boobaa da ngaa liir tanwiin bi liir bu normal mhm. te la ca topp du du baatu izhaar du xarafu izhaar gis nga seetlu nga mhm. moo mhm. tax boo gisee nga ne tabbat yada abi lahabin wa tab ñu ne la ah ah yàq nga ne lu ma yàq bin la waaw bin la waaye xoolal waat xoolal ba ca topp waaw kay waaw boobu mooy affecté tanwin bi mhm. hmm? seetlu nga ko maanaam bépp lettre bu topp ci tan tanwin bu dul lettre yi rek dafay affecté tanwin bi bépp lettre bu topp ci nuun saakina bu du lettre yi rek dafay affecté nuun bi su dee leetar yii nag daf koy dafay feeñal nun bi dafay feeñal tanwin bi nii lu am solo la lu am solo la benn góor gu gu baax gu nekk uh, jaamal gër gi Ibrahima Cissé mooy jàngale waaw ah, am solo la ah, lu am solo la noonu la <laughs> am solo la xaw ma seetlu ngeen li may waxam déet hmm? léegi booy jàng tabbat yada abi lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa ma lu tax waxoo an anhu lu tax nga ne anhu nun bi mu ne mu normal ah ma agna anhu ah because of what the meme no ma agna anhu where's the meme here the hamza side No, it's not the Hamza. Anhu laa wax. Anhu. Yes. nun sakina bi ci anhu moo am nun sakina lan moo topp ci nun sakina bi ha. moo tax moo tax du ko affecté gis nga. bu dul woon ha nun sakina bi normally right. Mm-hmm. ma ax na anhu maaluhu wa ma kasab sayasla sayaslaha naaran naaran est-ce que naaran baax na naaran baaxul de lu tax munoo wax naaran lu tax parce que li topp ci tanwin bi du benn ci lettre yi mhm. kon munoo wax naaran da nga naan naaran naaran zaata na da ngay nëbbu tanwin bi ba pare nga am am xunna mooy part of the new nation dafay dem parce que zaata zaal bi xarafu ixfa la ko jàng dafay nëbbu tanwin dafay nëbbu nun saakina hmm? sa yasla naaran zaata lahabin wa mraatuhu lahabin gis nga waaw bi waaw idgham la lahabin wa mraatuhu lahabin lahabin la mais nga ne lahabin wa mraatuhu xamalatul xatab baax na xamalatal xatab baax na dégg nga fii jiidiha fii jiidiha lu ci topp xablun wala xablum gis nga mun loo wax parce que boo ne xablun tanwin bi dafa normal te benn te lettre yi ci topp du lettre isaar mim moo ci topp miim boobu dafay dafay dafay dañuy idgaam bi ci moom kon loolu moo ñuy yóbbu ci idgaam kon li ma bëggoon fii idée bi leer mooy bépp foo fekk tanwin wala nuun saakina ci alxuraan nga xool leetar ba ca topp du benn ci juróom-benn yii xamal ne mënoo liir nuun saakina ba liir bu normal xamal ne mënoo liir tanwin ba liir bu normal léegi nag nan nga koy liire yi atte yi atte yi di ñëw ñoo ñu koy wax very simple it's very very simple kon wax nañu ne nun sakina ak tanwin am nañu ñeenti atte du loolu la uh-huh. bu njëkk bi mooy izhar mooy dañ leen di feeñal feeñal leen lu mu lu firi mooy nañu mel rek lañ leen di bàyyi uh-huh. loolu nag mi ngi am rek qabla ahrufi gis nga dafay nekk before the qabla mooy before before the letters of the throat before the six letters of the throat hamza ha ghayn kha léegi nag loolu benn ñaareel bi mu ne wathaani wathaani wa boo koy boo koy jàng da nga naan wathaani ndax woy wi boo ne wathaani woy wi yaa bi doo ko indi wa thaani idgaamun bi sittatin atat fi yarmaluuna indahum qad thabatat lakinnaha qismaani qismun yudgama fiihi bi gunnatin biyanmu culima illa ida kaana bi kilmatin fala tudgim ka dunya thumma sinwaani tala والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن ثم كررن والثاني في والثاني والثاني والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. ok ñu firi Uh, my translator. Bismillah. <laughs> And the second rule No no no lii kii la rek bul ba six bi. non non daf la bëgg maanaam lii booy jeex demee ci fa téere ba jeexee dana fa nekk di la wax lan la lan la idgham di firi. moo tax mu defal ko numéro daf leen di te pour wax la après fa nga koy xooli nga six fii bracket bi sept sept fii pour mu wax la loolu lan lay fi by a collection of six letters occurring in Yarma Yarmaluna, hmm. which are well established. ok bàyyi taxawal foofu taxawal foofu taxawal taxawal taxawal foofu taxawal waaw ah, ok so firil ba mu pare firil ba pare ñu ñu ñu soog a lakin however. however they are two groups. of they are of they are of. oh they are of two groups. a group in which the hunna occurs. and it is known by the letters Yagmu. Mm-hmm. Except when it occurs as a single word like dunya, then sinwani, preceding it. Mm-hmm. And the second group is idram, in the absence of Munna, mm-hmm. the case of Lam and Ra, then observe Takwir mm of the letter. of the latter of the latter of the latter meaning the ra ok leer na jarul firi wala leer na ah leer na <laughs> ah, ok kon ok ok ok wa thani idgamun ñaareelu atte bi dal ci nuunu sakina wala tanwin mooy idgham idgham mooy lan seeyal maanaam seeyal nuunu sakina bi da koy seeyal tanwin bi da koy seeyal fan bi sittatin atat ci juróom benn leetar yoo xam ne dikk nañ fii yarmaluuna ci baatu yarmaluuna ji fii li ñu ngay cukki-cukki cukki xam nga yaru ramal bu ñuy bu bu ñuy tawaaf noonu ñu ne la ñetti ñetti yoon yu njëkk yi da ngay cukki cukki cukki cukki mooy dox boo xam ne moo gën a gaaw daw waaye moo gën a moo gën a gaaw dox waaye moo gën a yéex daw uh-huh. léegi nag ñi koy def su fekkee mbooloo lañ nga mëne nga ne leen nga ne dañuy cukki cukki da nga naan yarmaluuna ña ngay cukki cukki wala yarmaluuna dañuy cukki cukki dañuy daw dawub cukki cukki bu doon fas la ñu ne dafay cal dañuy cal bu dee nit dañu ne cukki cukki ndax nit du cal xam nga waaw indahum qad sabatat yi nga xam ne ñooy composé baatu yarmaluna fàtte leen firi mi ma leen di firil fàtte leen ko li mu bëgg wax rek ci mooy dafa dama ko firi ngir ngeen jàpp ko maanaam baati yarmaluna ñaa baat bii di yarmaluna ñaata lettre a ci nekk ya six ban ak ban ak ban ya waaw na takk li mu wax mooy saa yoo gisee nuun saakina nuun bu am sukkoon mbaa mbaa tanwiin nga xool leetar ya ca topp maanaam nga xool baat ba ca topp tàmbalee ci benn ci leetar yii nuunu sàkkina gi danga koy seeyal ci leetar leetar booba leetar bi nga xam ne moo ca topp bu dee yàlla la nuunu sàkkina da nga koy seyal ci yaa ji raa bu dee raa nga seyal ko ci bu dee miim nga seeyal ko ci bu dee laam nga seyal ko ci bu dee waaw nga seeyal ko ci bu dee nuun nga seeyal ko ci est-ce que leer na par hmm? exemple bismillahi rahmani rahim ida zulzilati l ardu zilzalaha wa axrajati l ardu athqalaha wa qaala al insanu ma laha yowma idin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxee laha lu ci topp yawma idin yasduru yawma idin yasduru nnaasu ashtatan li yuraw acmaalahum fa man yacmal ñaata la am fi am naa fi ay lettres yu bokkut de yawma idin ndax yawma idin ngay wax yasduru wala yawma idin yasduru yawma idin yasduru da ngay seeyal tanwin gi ci yaagi fa man yaamal da ngay seeyal nun saakina gi ci yaagi dégg nga de waaye nag daf la bëgg a wax ne balaa ñëw balaa ma dugg ci exemple yi ma ñëw ci lu tax bi nga ne fay lu tax waxoo fa may yaamal nga ne fa may yaamal maanaam daf la bëgg wax ne seeyal dafa am ñaari xaaj lakinnaha qismaani seeyal am na ñaari xaaj qismun yudgama fihi bi gunna dafa am seeyal goo xam ne dañ koy def ànd ak nosal maanaam ci biir juróom-benn leetar yi am na ci yoo xam ne sooy seeyal noon gi ci ñoom wala ngay seeyal tanwin gi ci ñoom dang leen di seeyal ànd akuk nosal sa bakkan loolooy tax seeyal gi kon dafay nekk en partie parce que nosal bakkan dafay dafay yore soow nun tamit seetlu nga mm-hmm. du nekk fuli maanaam da nga koy seeyal ba pare jëlaat ci dara maanaam seeyal bi it's mm-hmm. gonna be half seeyal half idgham moom moom lay wax ne lakinnaha wante qismaani ñaari xaaj la qismun xaaj boo xam ne yudghama dañ koy idgham idghama fiihi dañuy idgham nuun saakina gi wala tanwin gi fiihi ca leetar booba bi gunnatin ànd ak mm-hmm. nosal baat ànd ak nosal mm-hmm. yooyu nag na leen bi yan mu yan moo wala nga ne yawminu yawminu yan mu ñaata baat ñaata leetar la ah déedéet yan mu baagi bu baagi daf lay wax baay baay gi mooy baay baagi ci baa bi bokk ci yan mu laa wax ndax xam nga baa mënu ci bokk ndax yarmaluuna amul baa te ci biir yarmaluuna la génnee ñeenti leetar mu yan mu yan mu ci yarmaluuna la jógee seetlu nga Hmm? Uh-huh. yarmaluuna yan moo ñun bu ñuy bu ñun yuuminu bi la ñuy wax ndax yuuminu moo gën a rafet yan moo uh-huh. te benn la xam nga waaye wéy wi bu doon yuuminu wéy wi dafay yàqu yuuminu ñaata baat la yaa waaw miim nuun yan moo yaa waaw miim nuun ah quatre yaa nuun miim waaw yan moo mooy dana dolleeku yuminu mooy dana gëm waaw yuminu billaahi xam nga man moo ma dàqal yan moo waaye dafay comme dafay woy du baat bu ko neex jëfandikoo li mu soxla rek mooy daf lay jox benn nan nga koy wax agroon lan koy wax ah, na waxaat ko daf lay jox benn acronyme pour nga mën pour maanaam daf lay tënkal baat bi ci ay ci benn daf lay ci benn baat ngir nga bañ koo fàtte xam nga tey buñ la laajee xarfu idgham yi nga ne juróom benn ñu ne ñaata nga commencé yaa ra miim mën nga fàtte mais su fekkee mokkal nga baat bii di yarmaloo na rek dootoo amati problème hmm? nga soo mokkalee baat bi rek dootoo amati da nga ciy dagg ñeenti baat ñeenti leetar muy muy yuuminu wala yan moo comme borom téere bi yan moo la yan moo léegi nag yan moo booy seeyal fekk la ngay seeyal ci yaa nga koy seeyal wala ci nun nga koy seeyal wala ci miim nga ci waaw nga koy seeyal seeyal ga du mat ndax seyal gi dafay ànd ak nosal te bu àndeek nosal rek une partie ci bi nga yóbbu woon ci bi nga seeyaloon dafay ñëwaat parce que nosal dafa nosal mooy lan mooy sound noonu comme ah seetlu nga bakkan bi boo ko nosalee rek dafay saf nuun hmm? léegi jox kan moo may jox exemple seyal goo xam ne maanaam nuunu sàkki na gu ñuy seeyal ci yaa

lan lañ waxoon ba yaa bi toujours mooy jiitu maanaam nuun bi laa bëgg a wax nuun sakina bi ak tanwin bi ñooy jiitu donc baat bu baat yaa bi bu fekkee moo leen jiitu dootul du wokk foofu it doesn't work there hmm? yawma idin mm-hmm. yasduru yes that's tanwin very good yawma léegi instead of saying yawma idin yasduru da nga naan yawma idin yasduru yawma ndax idgham boo koy def euh, booy def gunna dafay am benn genre dafay am benn temps un peu yawma idhin yasduru yawma idhin yasduru idhin idhin hmm, macha allah loolu mooy tanwin bi bu dee bu nun sakina bi hmm? nunu sakina yes nun sakina yes with ya nun sakina with ya yes oh la yumbatanna no ya ya ya yes eh, all the time remember something nun sakina balaa ko yaa balaa ko benn lettre di affecté nun sakina bi moo war a jiitu wax I said it here ana fañ ko ana fuñ ko waxoonati fii xoolal ci commencement bi qabla ahrufi qabla ok nuun bi toujours mooy jiitu mooy jiitu lettre bi lettre bi affecté nuun bi nuun bee koy jiitu su jiitoo nuun bi rek doesn't count lettre bi affecté tanwin tanwin bi moo koy jiitu mhm. léegi the the same surah I recited you find you uh, li ngeen di seet mi ngi foofu. bi yow ma idin bi ma jox tanwin bi nga ma jox ci même saar bi nun saakina bi mi ngi foofu. fa man yaamal fa man yaamal ak wa man yaamal instead of fa man lan ngay wax fa da ngay seeyal nuun bi ci yaa bi ba pare nga nosal sa baat da seeyal nuun gi ci yaa gi ba pare nga nosal ha sa baat fa ak wamay man yaamal n'est-ce pas ak wa man yaamal loolu mooy idgham with ha Idgham with what? Ghunna. Idgham with ghunna. Hmm. waaye ghunna bi nag ghunna bu bu bu bu wàcce lay ghunna am wàcce doon parce que jeexitu idgham bi moo fay des. wala jeexitu idgham bi sax mooy kii. Hmm. waaw mu ngëkk ok. jàng na eh, Fatima jàng nga ci suratu baqara wa min annaasi ah wa min annaasi man yuminu baax na waaye man yaqulu la bëgg na wax ah wa min annaasi man yaqulu a wax ndax man yaqulu ngay wax wala man yaqulu very good man yaqulu amanna billah wa bil yawmil axiri wa ma bi muminin hmm? loolu loolu ak tamit eh, ci kanam man yujibuka qawluhu ak man yashri nafsahu hmm? man yujibuka qawluhu ak man yashri nafsahu btigaa mardatillah hmm? man yaqulu rabbana fa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya wama lahu fi l axirati min xalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina adaba annaar n'est-ce pas eh, doy na de wala bu fekkee tanwin la ah, ah, suratu baqara suratu baqara suratu baqara suratu baqara waa aw ka sayyibin min assamaa'i fiihi ah ayca zul zulumaatun wa ra'dun dina ñëw ci tun bi waaye fi ma soxla fii mooy wa barqun yaj'aluuna wa barqun wa barqun yaj'aluuna doo wax wa barqun waaye wa barqun yaj'aluuna n'est-ce pas ndax tanwin bi da ngay da nga tan tanwin da nga tanwin bi ci yaa bi with ok loolu mooy yaa léegi nañ fi tëb raa parce que raa raa dafa raa bokkul ci yan mo ban moo ci topp nuun hmm? kan moo ma indil mën na indil tanwin uh, nuun sakina before nuun wala tanwin before nuun waaye ca bàyyil ma yombalal leen ko wa man lam yajcalillaahu lahu nuuran fama lahu min nuur nga wax min nuur min nuur ndax suufa gis nga min nuur nga foog nga kii ko xëcc ko ndax bien que nuun la ak nuun waaye dafa am idgaam with gunna min nuur min nuur hmm? Hmm? ak xittatun nuxfar lakum naghfir lakum xittatun naghfir lakum xataayaakum xitta xittatun naghfir lakum ok miim kan moom moo nekk yaa nuun miim miim before am astaghfirullah miim after nuun sakina or tanwin idgham sayal nuun sakina on the miim ah fi am madin mun maddada waxaat ko fi amadim fi amadi kii bi de baax na din bi de baax na waaye amad bi fi ama nga wax fi fi amadim mumaddada dim mumaddada very good hmm? dim mumad loolu tanwin la nun sàkkina nun saakina nag am ngeen ñaar yëpp ci suratu lahabin wala suratu abu suratul masad ñaar yëpp a ngi foofu naw yes xablum muy tanwin bi ak mim sak ak mim ah mim masadin muy nun saakina ak mim mim masadin Instead of min masadin, we say mim masadin. Mim masad. Hmm? masad. Hmm? Mimma lillahi alladhi ataakum. Mathalan ma. ma. Hmm. The last one is waaw. Idgham with ghunna on waaw. Sayal nun sakina wala tanwin ci waaw. waaw bi moo koy mooy jiitu wala wala nuun saakina bi mooy jiitu nuun saakina mooy xaraf wi affecté nuun saakina bi dafay fekk nuun saakina bi jiitu ko lu am solo la lu am solo la ndax nuun saakina ak tanwin dafa bëri ci alxuraan mhm. daf ci bëri waaw mhm. ah, toujours nag araf wa cay topp dafay mooy wax moo ñuy wax nan la ñuy jàngee nuun ba wala waaw ba wala wala tanwin ba laa bëgg wax nuun saakina wala tanwin ba léegi nuun saakina wala tanwin before waaw ah, abi mhm, tabat ah, yada very good loolu mooy tanwin before waaw i doxam with gunna seeyal baagi bexel tanwin bi ci waaw gi waaye nga desal fa dara ndax i doxam ndax ndax ኦኬ ኑን ሳኪና ኑን ሳኪና non non non non waaw lañ wax waaw so li ngay wax sax bokkul boobu beneen la dañ ko jàng loolu mooy iqlaab tool ah. ca kanam la waaw nuun sakina la afuwun gafur waay waay um, yes you have to have tanwin before waaw not tanwin on waaw they have to have nun sakina before waaw or tanwin before waaw not tanwin on waw. Noon before Yes, it has to be noon sakina before waw. It has to be tanwin before waw. Yep, this is good. This is good. Li mooy tax ba kii bopp yi liggéey quoi mooy tax affaire bi du dem quoi. <laughs> mais suñ ko waxee rek mu dem dañ koy dafay dafay passif ba mu ëpp ah dafay passif di ok nañ jàng suratu raad wa ida araada wa bi qawmin bi qawmin suan fala maradda wa ma lahum min dunihi fatima wa ma lahum min min min waal min waliyin min waliyin dana baax may fii min waal min waal fama wa ida araada allahu bi qawmin suu'an fala maradda lah wa ma lahum wa ma lahum min dunihi min waal hmm, ci suratu raad hmm? ah, min min dunihi min waliyin bi ngay wax suratu kahf min waliyin waaye terewul même atte bi la min waliyin wala yushriku fi xukmihi ahada ahada ok min waal gis ngeen ko de min waal min waal daa wax min waal ok ak bu fekkee tanwin bi suratul baqara xatama allahu ala ku may dimbal wa ala samihim wa ala absarihim richa non non bul bul taxaw richawatun walahum richawatun walahum min waal richawatun walahum min waal richawatun walahum hmm? ok léegi nag euh, am na nag exception amut euh. amut am na di illa ida kaana bi kalimatin fala tudghimka dunya thumma silwani tala seetlu nga except when it occurs what as a single word like dunya kenn du wax dunya déedéet wala sinwaan kenn du wax sinwaan parce que ci benn baat la nekk su fekkee nuun saakina bi ñuy wax wala tanwin bi ak lettre ba ca topp ci même baat bi lañ bokk mhm. idgham with ghunna doesn't apply il faut que ñu bokk ñu nekk ñaari baat yu bokkut mhm. exemple yi ngeen fi jox ba léegi ñaari baat la yu bokkul mhm. min xam nga min ak waalin ñaari baat yu bokkul la min mooy from waal mooy aji méngoo ak faman yaamal man baat la hu faman yaamal hu man mooy hu yaamal daaz seetlu ko maanaam tan with gunna bii ñuy wax ne maanaam seyal gi ñuy seeyal nuunu saakina wala tanwin ci leetar ba topp ci moom su fekkee leetar ba yàlla mbaa nuun mbaa miim mbaa waaw day fekk leetar boobu nekk ci beneen baat bu bokkul ak baat bi nuunu saakina bi nekk wala tanwin bi maanaam baat nuunu sàkkina bi mooy jeexal baat baat ba ca topp tàmbalee yaa mbaa nuun mbaa miim mbaa waaw tanwin bi mooy jeexal baat baat ba ca topp tàmbalee yaa mba nuun mbaa miim mbaa waaw pour ñu mën a seeyal nuunu sàkkina bi ba tanwin bi ca leetar yooyu xam nga bi ñu waxee uh, baat bi njëkkoon a wax mooy lan yan yan mu uh, yan muu laa bëgg a wax non ci yan muu du yàlla njëkk a wax Uh-huh. noonu bi nga may yaqulu man baat la yaqulu baat la barqun yajaluuna barqun baat la yajaluuna baat la bu dee nuur nuun bi min nuur min baat la nuur baat la xittatun naxfir lakum xitta xittatun naxfir lakum xitta baat la naxfir baat la bu dee mim bi min mimmaal mimmaal mim maal min baat la maal baat la seetlu bu dee tanwin ci mim bi ana ana kii mathalan ma par exemple mathalan ma bu dee waaw min waal min baat la waaw baat la waalin baat la laa bëgg la waalin baat la waal ah ak richawatun walahum yaa ngi dégg léegi nag su ah go ahead ma non non na nekk ñaari baat rek pause mooy bu la neexoon loolu mooy booy booy jàng normal maanaam boo boo boo arrêté wut xam nga richa wa am nga option arrêté am nga option continuer yaa ngi dégg lii buñ koy wax mooy booy arrêté parce que boo doon arrêté doo jàng tanwin bi richa wa ngay wax amul pause maanaam li mu bëgg a wax mooy règle bi di idgham with ghunna mi ngi appliqué wu rek ci bu fekkee ne baat bi tanwi bi bi nun sakine wala tanwin bi nekk bokkul ak baat bi reetar yi nekk su fekkee nun saakina bi ak tanwin bi nun saakina bi ak baat yi wala tanwin bi ak baat yi ci même lettre bi lañ nekk ci même ci même baat bi lañ nekk laa bëgg a wax ah boobu du appliqué wu maanaam seeyal gi ñu war a seeyal nun saakina mhm. wala tanwin ci yaa day fekk nun saakina ak yaa bokkuñu benn baat buñ nekk su fekkee nun saakina ak yaa ñoo bokk benn baat buñ nekk kenn du seeyal nun gi ci yaa gi lu ci misaal mu nekk dunya dunya ngay wax doo wax dunya lu tax ngay wax dunya te nun sakina la yaa topp ci parce que yaa bi ak nun sakina bi ci benn baat lañ nekk leer na mu joxewaat beneen misaal ci sinwaan hmm, yàlla jàng na sinwaan wa xayr sinwaan ci suratu raad sin sinwaan doo wax sinwaan lu tax parce que nun sakina bi ak waaw bi ci même baat bi lañ nekk maanaam règle biñ jàng léegi pour nga appliquer ko day fekk nun bi ñu sukkoon wala tanwin bi nekk ci jeexitu baat baat ba ca topp tàmbalee ci benn ci lettre yi hmm? uh-huh. léegi joxe na dunya joxe na sinwaan mën nañu joxe qinwaan mën nañu joxe bunyaan hmm? donc su fekkee ne ci même baat bi lañ nekk doo leen doo appliqué bi loolu rek la bëgg moo tax illa ida kaana lu dul ñu nekk nag bi kilmatin ci benn baat fala tudghim bul idgham kon nga jox ma misaal mu nekk dunya comme baatu dunya thumma sinwaanin comme baatu sinwaan donc kon jàng nañu idgham ñu ne xarafi idgham yi juróom-benn lañ ñu ngi ci yarmaloona yaa raa miim laam waaw nuun ñu ne nag dafa am ñaari xaaj idgham ak ghunna ak idgham bu àndul ak ghunna idgham ak ghunna ci ñeenti lettre yi lay appliqué wu yaa nuun miim waaw ñaata lettre a des déedéet a des laa wax Okay, thank you. da ngeen di ana ana café gi. ñaata lettre des. def ñu ne juróom lettre yi juróom-benn lañ juróom-benn yooyu nag eh, lettre idgham yooyu di juróom-benn nag nga xam ne dañuy seyal nuun saakina ci ñoom dégg Euh, wala tanwin lettre yooyu juróom-benn lañ juróom-benn yooyu nag dañ leen di diviser en deux xaaj boo xam ne bu ñuy seeyal nun sakina ji ci ñoom dañ ko ciy seeyal en partie partially bu ñuy seeyal tanwin ci ñoom dañ ko ciy seeyal partially yooyu ñooy lan ñooy ñeenti lettres yi yaa nun mim waaw léegi boo paree ci ñeenti lettres yi ñaataa des ñaar muy ban ban raa thank you moo tax mu ne wathaani idgaamun bi gayri gunna fi llaami warraa thumma karriran mu ne ñaareelu idgaam bi mooy idgaam boo xam ne du ànd ak gunna idgaam in the absence of gunna mm. loolu nag mi ngi am in the case of laam ak raa mu ne waaye nag bul fàtte takrir raa boo koy wax baamtu gi nga koy baam maanaam ak sa waaye dañuy wax ne takrir bi ñu def ci raa dañ koy wax pour nga bañ ci bàyyi xel ba mu ëpp ndax boo ci boo ko boo ko defee rek boo moytuwul nga def ko more than it is normal hmm? ñaari parti idgham ak ghunna ak bi ci des ban la idgham bi ghayri ghunna idgham idgham with without ghunna idgham mooy yan mu idgham without ghunna mooy laam ak ra mhm. mooy what does that mean it means dangay seyal the nun sakina and the tanwin totally completely don't feel anywhere hmm? fii seeyal gi dafay seey ba jeex takk jëng de we're not talking about idgham ñu ngi ci idgham forget about iqlam idgham without ghunna maanaam idgham bu àndul ak nosal bakkan maanaam complete idgham maanaam nuun sakina su toppee ci su su jiitoo laam nuun sakina bi dañ koy seyal ci laam bi hmm. nuun sakina su jiitoo raa nuun sakina bi dañ koy seyal ci raa bi xaraf wu ñu tanwin su jiitoo laam xarafu tanwin boobu dañ koy seyal ci laam bi xarafu tanwin su jiitoo raa xarafu tanwin boobu dañ koy seyal ci raa bi léegi kan moo kan mën a jox misaal ci raa bi ci laam la njëkk a ayca ayca ayca ayca ayca mu gaaw ayca mu hudal nga foofu hudal ngay wax boo dootoo yëkkati benn hudal lil muttaqina dégg hudan lil muttaqina seetlu nga ko hudan lil muttaqina bul waxate hudan bul waxate hudan eh, hudan lil muttaqin dal day mel ni daa bi daal bi fatxa ci nekk lam bi sukkoon dal hudan lil muttaqin what do you mean. exemple bi ñu joxe. Mm-hmm. man hu dan du dafa am tanwin. Mm-hmm. dan du tanwin la. Mm-hmm. léegi tan bi bi lan moo ci topp. laam. laam moo yaa boobu nga gis du yaa loolu alif la. Oh, ok. yaa boobu alif la loolu kontewul parce que saa yoo jàngoon nga ne xaraf booy am fatxa bu bu fatxa booy tanwin euh, sooy tan tanwinu fatxa tey ni dafay am alifu support mm-hmm. hmm? dafay am alifu support jàppal ne loolu alifu support la ok loolu uh, doesn't count laam moo ci topp la preuve la yaa tam xudan nga waxuloo xudee wala huda mm-hmm. hmm? uh-huh. so dañ koy bind waaye duñ ko doo ko jàng kon dafay mel ni nekku fa mm-hmm. maanaam laam moo ci laam moo topp ci tanwin bi saa amul benn tan wiinu fatxa budul am laamu alifu support uh-huh. hmm? ok pour nga pour nga pour nga am feneen foo xam ne ni mu gën a leer ji yow hmm? mm-hmm. euh, jàngal suratul kahfi kan moo mokkal euh, ayaat yu njëkk yi suratul kahfi alhamdulillahi alladi uh-huh. uh-huh. romb nga romb nga bu yàgg li ma bëgg li ma soxla yaa romb romb nga ñaar waaye waaye mil mil la ah min ladunhu rek laa soxla fi sadida min ladun min ladunhu min xam nga min la ladunhu mais nuun gi dafa am lan sukkoon nuun saakina la after nuun saakina comes what laam léegi laam gi dafay lekk nuun saakina gi da ngay nuun saakina dafay soppeeku shadda ci laam gi min ladunhu ngay wax dootoo wax min ladunhu ak si kii tam mhm. ak si ixlaas bi tam mhm. walam yakun lahu thank you macha allah macha allah man kii kii dama ko xeeb de mhm. kii dama kii ëpp naa xeeb xale bi ah walam yakun lahu yes kon kenn du wax walam yakun lahu mm. walam yakun lahu Mm. Uh, suratu suratu Naba suratu Naba noonu foofu dafay sori demal ci rabbi samawati wala rabbu samawati ñaari baax na rabbu samawati wal ardi wala rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmanu wala wa ma baynahuma arrahmani la yamlikuuna xitaaba yawma yaqumu yawma yaqumu wal malaikatu saffan la yatakallamun thank you saffan la yatakallamun kenn du wax saffan la yatakallamun saffal fal day mel ni faa fatxa ak laam sukkoon fal laa hmm? tanwin mu ngi noonu tanwin saffan laa yatakallamuuna nga ne saffan laa yatakallamuuna saffan laa yatakallamuuna leer na de ak hudan lil mut ah ah naññi ok <laughs> ah, leerut leer na di saa yoo gisee nun bu am sukkoon laam topp ci wala tanwin laam topp ci xamal ne laam gi dafay lekk nun sound bi both in tanwin and nun sakina the n sound is eaten completely eaten moo tax ngay gis boo xoolee da ngay gis ne nun ba en général du am sa du am sukkoon dañ koy dindi ba pare nga gis laam ba dafay am shadda mu mel ni daabul laam la léegi mil la dundu hudan lil muttaqina seetlu ngeen ko saffal laa yatakallamuuna léegi bi ci topp lan ban moo ci topp raa waaw amee nuun saakina before raa wala nga am tanwin before raa the sound of the tanwin the will what will be immersed in the Noor Sakina dañ koy seeyal completely seeyal ci noon ci ci eh, in the in the in the ra ku ma kan moo mën a jox exemple hmm? fi ñu doon jàng sànq ci sortu na ba am na fa soriwul ak fi ñu doon jàng xoolal aaya aaya aaya aaya bi ko jiitu ok xaaral ma dimbale leen inna lil muttaqina ah waxaat loo wax waxal am nañ si ah? alxaariya ah am nañ ko si faxuwa fi xichatin radia fi xichatin radia non Yasin yow cheating yow da ngaa yore book ok mm-hmm. you have a book writing <laughs> Yasin <laughs> Yaasin yaa ko bëgg. boobu dama boobu dama ko jàng. <laughs> boobu radia bi daf ma jaaxaloon. non non yaa ko bëgg Yaasin. Uh, uh, but but it's okay. no no no no no no yaa ko I, like it but boobu du nun sakina boobu tanwin la. I need a nun sakina. Mm, but it's good you're good parce que uh, même rule bi la but nun sakina la laa doon laaj mm? inna lil muttaqina mafazan ma dimbale leen ay ceeb mm -hmm. wa kawaiba continue wa mm-hmm. kaasan dihaqa aha mm-hmm. macha allah jazaan min rabbika min rabbika nun sakina before ah. min rabbika very good min rabbika am min rabbika am bi foofu mim min rabbika instead of min rabbika you say min rabbika hmm? ah

rahimun waaye nga ne raufun rahim raufun rahim yàq la raufur lay mel ni faa bi damma moo ci nekk raa bi nga shadd ko hmm? seetlu nga ak uh, bi yaasin joxe sànq fi iishatir raadiya hmm? fi ishatin radiya instead of fi ishatin radiya fi ishatin radiya am na beneen ci suratul baqara ci njëlbeen gi rek oh fayit mën naa am Fatima mën nañoo dimbale kullama ruziqu minha كل ما رزقوا منها كل ما رزقوا min samaratir rizqan min samaratir rizqan qaalu ah what the tanwin you're asking for the tanwin min samaratir rizqan Uh, yes it's min thamaratin rizqan tin rizqan min thamaratin rizqa kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa doo wax min thamaratin danga naa min thamaratir nga idgham tanwin of the ta marbuta to to the ra right leer na Fatima leerul what is not clear tell me tell me ah kullama ruziqu minha lu ci topp ok so min min am na tanwin ci taabi wala amu ok like after tanwin comes what Ra. That's what we need. Huh? Huh? I got it now. Good. <laughs> Alhamdulillah. Min thamaratin rizqan qalu hadha rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Masha Allah. Okay, we're taking too much time. What's the time now? Okay. maybe we can we can. man moom léegi deux heures du matin jot. waaw nañ yeggali lii rek mu gaaw. léegi nee na jeex na tàkk bi yii nii duñu duñu yegg ci bi ñetteel bi benn baat rek benn lettre rek la wa thaalithu liqlaabu inda albaa'i miiman bi gunnatin maa al ixfaa'i translator

waaw indal baa i fa baa lan ngay jàllar bi nuun saakina bi lan ngay jàllar bi tanwin bi danga koy wëlbati danga koy jàllar bi mu jógee ci nuun saakina sound ak tanwin sound into what sound miiman into miim sound bi xunnatin ànd ak xunna maal ixfaay ak nëbb nga xam ne kon miim bi tamit dootul complète half and half lay doon I Yes, uh-huh. yes yes baabum andi seet nga ne baabum da miim bi du feeñ danga naan baabum baatinu baabum baatinu so baabum la ak miim waaye comme da ngay ba pare da ngay ixfa nga wàññiwaat miim bi muy baabum baatinu mm. mm. da gis ne booy xool ci kaamil bi sax da ngay ñu def benn miim bu ndaw wax la ne nag la waaye loolu mooy mooy tanwin bi léegi how about the nuun nuun sakina su fekkee nuun sakina we always have two things nuun sakina ak tanwin ah yes nuun sakina bi aussi wa thalithul iqlab we are talking about the ahkam everything we talk about the tanwin applies also to what te nun saakina right mm, yeah. so it's two there are two ay seex lañu lu lu valable ci tanwin moo valable ci nun saakina so you gave me an example alhamdulillah with tanwin can you give me an example with nun saakina nun saakina that comes before ba uh, am na ku ko fi jàngoon sànq xam naa ne fàtte na jàngoon na ko <laughs> am na ku doon joxe misaal waaye misaal daf ci juumoon mu jàng baat boobu Wakanda was? Uh, it was Fatima Ibrahim to help you. Really? Yes. What surah was it? Huh? What surah was it? That's too easy. <laughs> Okay, Washamsi. No. Washamsi. Washamsi. Yes. Idhim ba'atha. Gis nga idhim ba'atha. Nun sakina before ba. Mm-hmm. Idhim ba'atha. Doo wax idhin ba'atha. Idhim ba'atha. foofu da ngay feel a little bit even more of the meme okay so idhim no no idhim la idhin la nun sakina before baa but boo koy jàng da nga koy jàng da ngay jàllar bi nun sakina bi into a meme boo xam ne meme boo xam ne dañ koy nëbbu tuuti with idgham no no no za za za fortaleel za nun sakina lañ wax waxuñ zind du loolu du tanwin de idhin id la id in waaye comme comme comme am coming xam comme comme za bi sukun lañ ko war a laaj id ba nga xamee ne in baatha buur na jog na ashqaahum ka gën a texee di ci ñoom mooy ka rendi woon ka rayoon gi la Musa le uga yent yàlla saalih ñu nan ko qudaar waxi tafsir kat id la waaye comme id bi dañ koy sukkoon mais hamzatul wasli moo nekk after is bi nga kasra zi bi nga ne i zi léegi after hamzatul wasli bi nuun moo fa nekk dafay mel ni hamzatul wasli bi nekkatu fa da nga naan idin idin idin idin baasa yaa ngi dégg dafa mel ni is la ak in baasa waaye hamzatul wasli bi moo tax ñu ne idim idin idin léegi nag comme ba moo topp ci nuun saakina bi nga ne idim baasa idim idin baatha léegi mii mu la nun saakina bi di jàllar biku mais comme miim bi dañ koy dañ koy ixfa ba pare xun na ko moo tax dafay delluwaat mel ni xarfu ixfa idin baatha idin baatha ashqaha yes benn la mim baadi gis nga boo ubbee sa kaamil toujours da ngay gis ne ci kaw nuun bi am na benn little mim bu ñu fay def wala ci kaw baa mhm. pour wax la ne la min baadi doo wax min baadi hmm? wala am bi hum asmaihim am am doo wax am bi hum asmaihim am buurika man fi am buurika am buurika bu dee tanwin basir nga ne nga basir samiun basir doo wax samiun basir ah mhm. yambua naam yes yes am na loo doon wax yaasin waaw ma boobu c'est la même euh, jeex mim bu nekk foofu ci suuf tam waaw loolu la parce que lu tax ñu ko fay def mooy tan suraat bu jeexee tanwin su fekkoon ne danga nga continuer bismillahi rahmaani rahim xam nga baa nga tàmbalee. moo tax ñu ko fay def pour boo doon continuer. ah bi ah, même bi la. ah en général doo ko gis parce que dangay taxaw moo tax doo ko jàng. daf la bugga a wax ne tey jii yow. ok léegi xoolal ban saar moo jeexa ak tanwin rek jëlal benn eni saar. qul huwa allahu ahad par exemple fan la jeexee ahad bi dañ koy tan tanwin wala duñ ko tanwin buñ koy boo koy bind yes léegi xam nga booy taxaw da nga naan ahad mais su fekkoon taxawoo dangay ngay naan da ngay lire dun bi right waaw léegi nag dama jeexal qul huwa ahad ma bëgg a jàll ci falaq taxawuma bu ma ne walam yakun lahu kufuwan ahadun bismillahi arrahmani arrahim qul audu bi rabbil falaq parce que saar yëpp bismillahi rahmani rahim lay tàmbale moo tax saar bu jeexee tan wi ñu defal la fa benn miim in case you just wanna continue to the next saar without stopping seetlu nga ko hmm, mu ngi mel ni suratu uh, masad fan la jeexee hablum min masad min masad léegi nag soo bëggoon a continuer nga ne hablum min masadin bismillahi rrahmani rrahim saar bi nga xam ne tàmbalewul ak bismillahi rrahmani rrahim baa la moo tax yu gën a foog a par exemple booy jeexa suratul anfal kan moo kan moo xam suratul anfal fi hmm, Fatima suratul anfal fan la jeexe What do you mean you don't know? Yeah. Every one of you knows it. Just think about it. Ustaza. no, no. Good Ustaza here. suratul anfal yéen ñëpp xam ngeen fu mu jeexe alimu inna allaha bi kulli shay'in ah alim waaye bu fekkoon ne dama taxawuma dama naan alimum bismillahi rrahman am sorry alimum baraatum min allah parce que baraa amul bismillah waaye baala tàmbale seetlu nga inna allaha bi kulli cheyin alimun baraa baraatum min allah loolu moo tax ñu la koy defal foofu in case you want to continue okay. let's not stop there for long because time is going you have a lot of example of ya adamu anbihum bi asma'i ah yes tanwin before ba boo xoolee ci sa kaamil da ngay gis ne am na miim bu ndaw bu ñu la fay defal pour wax la ne la it's a iqlab letter that comes after the tanwin hmm? mm-hmm. lu am solo la lu ama am solo li góor gi di mm-hmm. lu ama am solo la parce que danga ci dul bàyyi xel am ci dul bàyyi xel hmm, bu ko defee euh, di nga gis ne am na ñoo xam ne saa yu ñu la déggee ngay jàng ñoom loolu rek la ñuy bàyyi xel te yow doo ci bàyyi xel waaw ah, moo tax lu am solo la lu am solo la hmm? léegi nag والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب lil faadili gis nga ñaari faadil la la indil fii ah, arab dafa neex dafa dafa dafa riche wallahi ah faadil bu njëkk bi mooy li des faadil bu ñaareel bi yow lay waxal yow miy jàng ah the translator warrabiu al ixfaau inda al faadili min al xurufi waajibun lil faadili fi xamsatin min bacdi ashrin ramzuha fi kilmi hadha al beyti qad dammantuha su ma bëggoon a appliqué règle tajwid fii dama naan fii xamsatin min baadi ashrin ramzuha fii kilmi hadha al beyti qad qad dammantuha ah sif dha thana kam jaada shaxsun qad sama dum tayiban zid fii tuqan da zalima Masha Allah. Translator? Okay. the fourth rule is ifa, it being the remaining letters, which is obligatory on its distinguishment for those who have studied the science. In five of the 10 letters is combination in the initial letters of the words of this line I have gathered them. described a possessor of praise. How generous is a person whom has attained such status? Always be good, increase in leave an oppressor. comprendre ngeen li wax. voilà. conseil lay joxe wala. déedéet alhamdulilah. su ma su ma leeralee conseil lay joxe waaye du conseil yi la soxla maanaam daf lay jox conseil mais baat yi muy composé conseil yi la soxla waaw euh, ah, waaye maa ngi ñëw bo léegi nee na war raabiul ixfa ixfa mooy lan mooy mooy mooy safaanu izhaar izhaar mooy feeñal ixfa mooy nëbb right ah. ñeenteelu rule bi apply ci nuun saakina wala tanwin mooy al aji des min al li des ci leetar yépp bu ñëwee gannaaw nuun sakina wala tanwin dañuy nëbbu tanwin ba dañuy nëbbu nuun saakina ba mu ne lii ma wax nag waajibun aji war la lil faadili ñeel waaju baax yay jàng alxuraan faadil mooy ku baax ku gën waaye faadil bu njëkk bi mooy firi li des hmm? alfaadil min alxuruf mooy li des ci lettre yi ñaata ñaata mu ne fii xamsi ashrin fii xamsatin min baadi ashrin du cinq gannaaw fukk kon quinze lettres ñoo des seetlu ko tu lettre yi buñ biñ ñaa lettre hmm? mooy ban ak ban. déedéet izhaar laa yes mooy the throat letters. Mm-hmm. hamza ha ayn ha ghayn kha so we have six. Okay, the idgham letters, how many are they? All of them, all of them. Four. No, all of them Six. Yes. Yarmaluna, Yarmaluna. Yarmaluna. I only need the global number. Six. Six. they are in Yarmaluna, right? Because Yarmaluna too, mm-hmm. six plus six? Twelve. How many are the iqlab letters? Four. No. Iqlab. One. One. Thank you. Which is? Ba. Masha Allah. No, ba. It's ba. Only one. wa thalithu liqlaabu inda albaai there is only one iqlaab letter the four you're talking about is idgham with ghunna right Idgham, we say idgham, we have two types of idgham. Idgham without ghunna and idgham with ghunna. They are all in yarmalun. From yarmalun, we have yanmu. Yanmu ñooy ñooy mooy idgham with ghunna. boo ko génnee ci yarmalun ra ak laam ñoo ci des ñooy idgham without ghunna. So we talk about, we already took them. There are six. So we have six plus six equal twelve. Now plus what? One letter of iqlab. There is only one letter of iqlab. Iqlab mooy jàllar bi. maanaam yeah to turn something into something else to turn the noon sound in tanwin or noon sakina into mim sound with ikhfa and ghunna so you have 12 plus 1 equal 13, minus 28 wala 28 minus minus 13 ah ñaata mooy letter the remaining letters fifteen letters ñooy lan ñooy the letters of ixfa ixfa c'est-à-dire soo soo soo dee jàng alquran ba gis benn lettre bu bokkut ak fukki ak yi ak ñett yi nga romb nga li nga gis nuun saakina jiitu lettre booba wala tanwin jiitu lettre booba mooy xamal ne lettre bi yaa ngi koy tudd between izhar and idgham idgham izhar and idgham mooy da nga leen da koy nëbbu ba pare nosal soo nosalee kon mooy di nga indiwaat lëf ci la nga nëbboon du noonu maanaam yaa ngi koy nëbbu da koy fe da nga koy da koy nëbbu ba pare nosol ko Hmm? yooyu yan lettre la dinañ ñëw ci ay exemple mooy the remaining fifteen letters léegi nee na nag fi xamsati min baadi ashrin ramzuha fi kilmi haada al beyti qad dammantuha fukki lettre lañ ak juróom nee na nag junj lettre yooyu maa ngi leen def ci baati bayti bii di dikk mooy liiñ bii di dikk baat yéen ci gis yëpp lettre bu njëkk ba ca bu njëkk baat bu nekk ci baat yi xarfu ixfa la sif un dha deux thana trois kam quatre jaada cinq shaxsun six qad sept sama huit dum neuf tayiban dix zit onze fii 12 tuqa 13 da 14 zaliman 15 léegi nag baat yooyu nag ba la koy indil daf la ko tëggalee noo xam ne daf lay jëriñ daf la mu ne la sif mellalal taggal za sana boromuk tagg kam jaada bari na bu tabee shaxsun jëmm joo xam ne xat sama kawe na dum saxal tayiban di ku teey zit fi tuqaa yokkal sa ragal yàlla da zaliman bàyyil tooñkat waaye lim la bëgg wax mooy saad daal thaa kaaf jiim shiin qoof siin eh, daal too za faa taa daad za baat yi fukki baat ak juróom yi xaraf wu njëkk wu the first letter of each word rek nga soxla yaa ngi dégg nee na la de fifteen remaining letters yi nga xam ne ñooy xuruful ixfa boo mokkalee bayti bii rek mokkal nga leen léegi boo mokkalee bayti bii nan nga leen di mokkalee mooy xoolal bayti bi the first letter of every single word in this line seetlu nga wala leerut okay let's go here let's go here number three noon sakina is the noon that is at rest so it has no vowel and it is what indicated with the presence of a sukun loolu mooy lim doon marque yim doon yim la doon defal fële tanwin is from the scale Okay, go. Uh, okay, the translator, read for me. Read for me. Okay. is from the scale ta and so if you remove the extra letters, the ta and ya, you are left with noon. is the sound of noon without its presence. Jeex na hmm? As a terminology, is what? Mooy appearance. Oh, read here. Izhar is izhar as a terminology is what? To make the noon sakina and tanween dahil mm-hmm. clear. Yes. When it appears before the letters of idgham. Of izhar, which are six. Huruf, the, the throat letters. Idgham is what? To merge. To merge the noon sakina mm-hmm. or tanween with the letters of idgham. Good. The principle of idgham does not occur when what? Their rule appears within one word. Like dunya ends in one. The, mm-hmm. the Shia gives an example of two, and there are another two mentioned in the Quran. Qinwan ak bunyan. Bunyan. Okay. Takrir. Takrir mm-hmm. should not be made apparent, rather hidden, as when idgham is applied, it becomes double mm-hmm. voweled and there is more chance of the taqrir becoming evident ok all these mooy note yi nga doon gis ci kaw waaye li tax ma indi la fii nine bi rek laa soxla fii ah, ok the author uh-huh, read the author gives an advice in this line although the main purpose of the bait is to give the 15 letters of ikhfa which, which appear at the beginning of each word dégg nga mi lay jox mi ngi lay jox ay xalaat mi lay jox mi ngi lay xelal fii sif rathana describe the possessor of praise maanaam koo xam ne ni dafa amee jikko ju baax mellal ko tagg ko dégg nga kam jaada shakhsun kat sama maanaam générosité képp ko xam ne dafa baax dafa tabe dafa nangam toujours foo ko fekk dafay kawe kon nag na nga tab na nga kawe na nga tab baax nanga nga tabe dum tayiban nekk saxal ci mbaax saxal di ku baax zit fi tuqaa yokkal sa ragal yàlla da man ku bañ ku tooñ ko bàyyi ko xam nga loolu daf la ay ay ay conseil la la jox waaye li ko tax a ci bayt bayt mooy firi line of poetry mooy lan mooy daf la bugg wax ne dégg nga the fifteen letters of ikhfa they appear at the beginning of each word. You have 15 words here. At the beginning of each word, you have the letter of ikhfa. The first letter is what? Letter sod. Hmm? Letter what? What is the first letter? Sad. Hmm? In, sif. Mm? Sad, dal. Deuxième lettre Ta. No. daal troisième lettre bu nekk the first letter nga soxla oh, ok wóot bu nekk nuun mënta nekk eh, eh, ixfa because nuun is where mm-hmm, mm-hmm. nuun is in Yarmalona right mm-hmm. so you don't need you nuun here don't be confused nuun is an idgham letter So we don't need here dun. We need the first letter of each word. Mm-hmm. Okay? I have first one sad, second dal, three third tha, fourth kaf, fifth jim, uh-huh. six seven good eight get nine dal dal yes ten Pod. very good ta okay eleven zal uh-huh. za uh-huh twelve ah fa fa twelve fa okay thirteen ta good fourteen bored bored very good fifteenth vlog vlog very good very good okay uh, xam naa ne buñ ñëwaatee dinañ dinañ ci gën a kii waaye léegi for example the first one sad in yan in lan ngay wax in yansurkum non non uh, soxla ma in bi yansurkum bi rek laa soxla yansurkum looy wax yansurkum yansurkum ngay wax wala yansurkum yansurkum hmm? yansurkum ok baat di jàng da ngay dafay am dafay ixfa ixfa xaqiqi mooy lan nuun bi instead nga ne nga nga jàng yan yan yan half of the nuun ngay jàng yan yan with like idgham with with uh, okay, with like ghunna la bëgg a wax non idgham ikhfa with ghunna yan doo wax yan yan yan surkum wala yan surkum you cannot say yan yan surkum boo yan surkum baaxut parce que soit dafay nëbbu nuun bi Mhm. mais comme dafay am ixfa dafay am daf koy nëbb with idgham moo tax part of the noon remains yansurkum right wala man sabara wala man sabara you don't say wala man sabara wala man sabara tan bu dee tanwin amalan salihan doo wax amalan salihan amalan salihan dhal li yundhira doo wax li yundhira liyundira ak mandha ay ayatul kursi man dha alladi yes you don't say man you don't say man hmm? dha no you say man part of the noon is hidden mooy ixfa di so dégg xaraf yi yëpp dañuy nubb dañuy the noon with ghunna moo tax noon bi it's partially hidden noon bi it's partially you say man ma ngay wax ma man zalladi ah yeah now you know so that's why I was saying that noon sakina dafa am rapport ak every single letter that's why it is important to know nun sakin ak tanwin day have dañu am rapport wax naa la ne juróom benn lettre rek la ñuy jiitu te lettre yooyu duñu leen affecté mooy the first six letters the throat letters mm-hmm. every other letter affects the nun sakin or tanwin before them okay so because time is is moving I'm just giving uh, very uh, quick examples for example I'm going to bring the examples for example uh, ban nag ban laa joxe soit ak ak daal hmm? ah man dha alladi man dha alladi dhil dhil lin dhi hmm? ok ban baat ñaat fa fa mhm. ok Eh, man man amila salihan min dhakarin aw aw untha inna xalaqnaakum min gis nga min dhakar da wax min dhakarin de min ndax daal bi nga jàngoon sànq min dhakarin aw ha aw untha da nga koy xëcc untha ndax da ngay nëbbu part of the noon ndax ida ndax xunna bi da nga waroon nëbbu noon bi waaye da nga koy nëbb ànd xunna moo tax nga ne unsa unsa seetlu nga ko doo wax unsa wat unsa ok min samaratin jàngoon nañ sànq min samaratin rizqan min min min samara min sa min sa no no we're not there now ah we are not there we are out of uh, yow yaa ci idgham with ya yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ci yaa ci xuruful idgham right oh sa tata bi moom bokk ci classe bi <laughs> tombeeg loolu <laughs> ok loolu jàngoon nañ ko yeah yeah we are in ikhfa now that's idgham loolu après boo paree Fat Fatimatu dina la koy dina la ci. kam min fi'atin. kaaf bi kam kaaf ban. no no kam min fi'atin why. the kaaf. kaaf. example of kaaf how kaaf is an example there. it the example. No, calf cannot be an example. Can you? Can someone tell me why? Or oh, because the, she beginning la nekk. Yes, calf we have nothing to do with the rule here. Right. Yeah. We have the calf has to be after nun sakina or tanwin. After nun sakina or tanwin. Gone. Mm-hmm. It has to be after nun sakina. The ikhfa letter pour mu nëbbu nun sakina bi wala tanwin fokk nun sakina bi jiitu ko wala tanwin bi jiitu. Right? so fan lañ nekkoon pare nañ ñu ngi ci saa bi foo kaaf saa bi leer na uh-huh. min samaratin ok wala wala par exemple eh, eh, fan la yawma idin samaniya yawma idin samaniya yawma idin samaniya hmm? loolu ci sorat eh, alxaqa uh-huh. hmm? thin ak samaniya thin ak wala thin ak samaniya au yawma idhin samaniya da yawma idhin samaniya hmm? bu dee kaaf bi ok kaaf afternoon sakina did you think of another thing wala ma dem li sëriñ Mansour daan wax ma demam <laughs> ma dem yanku yanku instead of yanku da nga naan yanku yankuthuuna wa naada firaun fi qawmi lu noonu ak man kaana man kaana doo wax man kaana man kaana hmm? man kaana yuminu hmm? faman kaana fi hadihi ama hmm? man kaana la ñuy wax wala man kaana waaw dafa da ngay nëbbu da ngay nëbbu lan loolu ngay nëbbu fii ah lan la ñuy nëbbu ah nuun saak ina bi la ñuy nëbbu ànd ak ànd ak ànd ak wat ànd ak ànd ak um, gunna wa man kaana fi hadihi ama bu waaw fii ñu ngi ci nuun saakina bu dee ci bu dee ci tanwin aliyan kabira aliyan kabiran nga ne aliyan kabira instead of aliyan kabira right inna allaha kaana aliyan kabira da nga naan aliyan kabira yan kabira right ban ban ban ban ban ban lettre moo ci topp sif dha thana kam jaada shakhsun qad sama ban baat moo topp ban lettre jiim jiim kan moom mën a jox exemple macha allah suñu classe bi tey dafa ala doomi de uh, jiim ok I will give you nun ji nun ji man nasha uh-huh. nun ji lan ngay wax nun ji ngay wax wala lan nun ji man nasha ak man jaa man man man doo man jaa man jaa da ngay lekk part of the noon ak nga def with gunna right man jaa man jaa bu dee tanwin wali na wali kullin jaal waaye nga ne wali kullin jaal na hmm? wali kullin nga ne wali kullin jaal na am solo la am solo la am naa beneen waay bu ma dégg muy wax lu am solo la fàtte naa turam waaye góor waa ji benn euh, góor gu baax la defe naa kokki waa lañ koy wax waaye fàtte naa tur ba euh, c'est c'est euh, waa waa Tuuba la mën a waxtaan ku mën a waxtaan xaw ma nan al kokki lañ koy woowee ay wax moom it lu am solo la ni ko góor gi Ibrahima siise di waxee ko lettre yi dañoo bari ma ñu jaar ci mu gaaw rek comme ça bu ñëwaatee incha allah dinañ ci gën a yaatal ban ban lettre moo ci topp ah min sha'airillah loolu mooy fan mooy eh, Chine bi waaw macha allah min sha'airillah very min sha'airillah ak faman shahida minkum faman shahida faman shahida minkum gis nga minkum bi mooy dellu ci kaaf bi ñu jàngoon sànq minkum da wax minkum faman shahida minkum shahra ak yunshi'u yunshi'u hmm? yunshi'u da wax yunshi'u waa yunshi'u hmm? wala alimun shara'a lakum boo taxawul nga ne alimun shara'a lakum alimun shara'a lakum yaa si nee na ma ngaa nelaw demal nelaw yi dafa guddi Sénégal li ci des waaw baax naa mu problème léegi nelawal ci computer bi léegi tey ñu pare boo xëralee rek ñu record ko ayca way ban ban ban lettre ci topp xoof wa wa wala ah déedéet wayus xaw na foofu lu tax wayus xaw na ana nun sàkki na foofu waxuma loolu de imaam ay seet rizqan qaalu ah waaw yes rizqan qaalu loolu mooy tanwin bi bi nun sàkki bi nun mm-hmm. sàkki mm-hmm. min diraarihim ana ana qaaf foofu. oh yeah you're right. min qablu ya min qarib min qablu. wa yanqalibu wa yanqalibu. wa in qiila instead of wa yanqalibu kenn du wax wa yanqalibu wa yanqalibu wa in qiila bu dee tanwin bi mathalan qarya mathalan qarya ak rizqan qaalu bi nga wax sànq rizqan qaalu ah min hada alladi ruziqna min qable ci nuun hmm. ok lu ci topp dood naw del naw oh, yes we need the first letter of the word ah. first uh, dal is one of them but it's not uh, it's not turam uh, dal mooy baat bi ci topp dum oh. sin aca sin the example of sin hmm? bismillahi rahmaani rahim alima an an sayakunu an sayakun doo an sayakun danga na minkum marda ah, rajulan salaman li rajulin ah fa ansaahum fa ansaahum allahu ah, yes nasu nasu llaha fa ansaahum anfusahum ak min saata min saata ah falamma xara falamma xarra tabayyanat iljinnu an law kaanu an law min saata yatu suleymaan alayhi salaam rajulan salaman li rajul min daabatin déedéet pareeguñ ngi ci siin ñu ngi ci siin salama rajulan salaman li rajul ah rajulan salaman rajulan salaman rajulan salaman yes somebody was saying something da nga am beneen exemple ok ok ah, eh, ah? you don't understand oh ok ok Fatima uh, garaawul yow Cheikh al Islam sama doom moo boo ko bëggee laaj lu xam mun na garaawul garaawul acca Fatima nga ne Fatima Ibrahim tiraan zalik loolu ngi ci siin siin lañ dellu siin ñu ngi ci siin waa siin laa wax imam no no it doesn't apply like that siin has to come after noon sakin after noon sakin after noon uh, sakin a hmm? wanisaa after. Sin is not after here. Sin bef is before. Is before. We don't need that sin. ah. Hmm? ah ok yi ñu wax baax na min saata ok you were saying something else. ah boobu baaxul. fi fi fi si every single letter we're talking about has to be after nun sakina after tanwin not before. Hmm? an sa yakun gis nga siin is after noon rajulan let's go to dal dal after sakin or tanwin min dabbatin min dabbatin min wama min dabbatin wama min dabbatin indahu indahu hmm? min dunillahi من عند عن من عملا دون عملا عملا دون تنوين Yes, sir. You have another word for me? Yeah. Um, mm-hmm. No. You good? Sorry. I was thinking dakan dakan, but Now has to be always. Dakan, Daka, yes? Is it good? Dakan, Daka, yes? The second dal, not the first dal. Kan, Daka. Kan, Kan, Serlungo. You cannot say Dakan, Dakan. You say Dakan, Daka. Hmm? The second dal comes after tanwin. Mm-hmm. mm-hmm. Uh-huh. Let's go to Doom what? Huh? طاد طاء طاء دوم طيبا طاء طاء after تنوين after نون ساكنة mm? شرابا طهورا no after نون ساكنة نون ساكنة you, you good yeah after نون ساكنة من طيبة min tayibatin macha allah min tayiba min tayiba hmm? man min tayibatin fu mu nekkati min tayibatin uh, ah wala donc wala donc koo créé rek dama ñëw ko déet waaw mais we a Quran word oh sorry okay <laughs> hmm? Get your Quran word. Uh, get me a Quran word. Like like Suratul Najm. Jànga Suratul Najm. Wan najmi iza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma tawa. Wa ma mm-hmm. ila hawa. No, no, no, stop, stop, stop. You're passing it. ما ضل هو No. وما ينطق عن الهوى. Yes. وما ينطق. وما ينطق anil hawa hmm? seetlu nga hmm? ok ok ok uh, fa in tibna fa in tibna lakum an cheyin minhu nasan fa in tibna nga ne fa in tibna suratu nisa fa in tibna seetlu nga ko seetlu nga ko de ah ak bu la neexee fi kalimatan tayyibatan wala kalim ka kali ah nan la ko waxeeti daraba allahu nan la ko waxee mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin ñaari baax na bu dee tanwin bi hmm? kalimatan tayyibatan tan ta tan ta ka shajaratin ta shajaratin ta tayyiba right wan saar la nekk fatimatu kalimatun tayyibatun ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fi samaa'i alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan alam tara kayfa daraba allahu مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة Ibrahim, right? Mm-hmm. Ah, yow waroon kii boobu yaay Fatima bintu Ibrahim waroo ko hésité ah, next letter next letter mooy ban za zid fi tuqa zid yokkal dollil fi tuqa ci ragal zid za nun sakina before za Hmm? bari na sax bari na lool bari na lool lool lool. fa in dalaltum. waxaat ko. in dalaltum. Mhm. yes baax na. Hmm? in zalaltum min baadi ma jaatkumul bayinaat faalamu min fa in zalaltum ok baax na baax na bari gën naa bari lool gën naa yàlla wàcce gi wàcce alxuraan yëpp loolu baat yooyu yëpp daf inna inna anzalnaahu anzala mu nga anzalnaahu anzalnaahu fi laylatil qadr ah ak fa in zalaltum wax nga fa ah, ah? loolu xulmaanan zakiyan loolu fu mu nekk xanaa ci bible bi la <laughs> wax ma ko fu mu nekk yi gën man daal am na fu ma ko disoo eh no no no gulmanan zakiya gulaman nga bëgg a wax gulaman zakiya there is no gulmanan zakiya that that bu jubul sax gulman ak wala gilman ngay wax gilman mooy yes gulaman zakiya moo am li ahaba laki gulaman zakiya waaye gulmanan amut Eh, li ahaba laki gulaaman zakiya sayidna jibril ba muy wax ak sayyidatuna mariam ci suratu mariam innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaaman zakiya boobu tanwin before za we still can use that because it's a tanwin before za the za hides the tanwin hmm, za bi dafay hide zakiya not gulaaman zakiya hmm? ok ak nafsan nafsan ayca nafsan moo mën a dimbale nafsan za nafsan zakiya yes nafsan zakiyatan wala zakiyatan yëpp baax na nafsan ngay wax nafsan zakiya macha allah zid fii fii fa before fa after after noon sakina first fa after noon sakina faman farada faman farada very good faman farada fihinna alhajja very Allah okay another word ah xanaa yéen du joxe ngir yàlla ñiy joxe ngir yàlla doo noonu loolu tanwin la maa ngi ci nun saakina bi you're good ba tanwin nun saakine laa soxla booy joxe ci booy joxe lu ko yàlla luñ koy tuddee anfaqtum wa ma anfaqtum yunfiq wa anfiqu hmm? hmm? yunfiq hmm? wa ma anfaqtum min shay wa anfiqu wa anfiqu ak anfiqu ak wa in faatakum wa in faatakum wa in min azwajikum hmm? very good very good loolu mooy kii bi nun loolu bi aca indil ma tanwin bi wax nga tanwin sànq yatiman fa yatiman fa very good ok rapidement ban moo ci topp mm, fii bi wax nga fii ba pare fii mm. fii baatu boppam la ban moo ci topp ta ah, ta tuqan tuqa mm -hmm. ta after nun sakina dafay nëbbu nun sakina bi ta after sakina mm. ta lai juat eta ha amantu amantu yes yes amantu very good amantu not amantu but amantu mashallah one more word you have many words many a lot of words in the Quran kuntum xayra umma ah kuntum Fatima Ibrahim walan tafaalu shay'an walan tafaalu luy walan tafaalu mana walan tafaalu li nga ci teg walan tafaalu d'accord naa mais ci tef laa then walan tafaalu eh, jeex na ñu yem foofu <laughs> I take that because that's in Surah Al-Baqarah fa in lam tafaalu walan tafaalu fattaqu nnaar mm-hmm. ok masha Allah ok uh, fa lañ tolloon ñu ngi ci foofu ak kuntum wa in tubtum wa in tubtum for example okay wa in tubtum waaye jox joxagu leen ma tanwin de tanwin before hmm? you have many of them tanwin before ta before ta uh, tan uh, uh before ta or nun sa you had to say nun sakin and before ta see hmm? tanwin ok xanaa yéen bu bugg leen demee aljanna bu ngeen demee aljanna lan moo fay xew aljanna yoo xam ne lan mooy daw foofu lan yoo xam ne ay dex ñooy daw ci suuf loolu la lu mu ko waxee jannaatin tajri ah ah ah ah jannatin tajri min tahtiha gis nga bo yooyu sax boole na ñaar oh, salihan tardawnahu jannatin tajri hmm? jannatin tajri am nga foofu tanwin westa min tahtiha am nga foofu ah, tan min tahtiha am nga foofu nun sakina wayid Pues está. ¿Mm? ¿Mm? saalixan tardaahu defe naa loolu de mm-hmm. yow léeg-léeg da ngay nelaw tardaahu la de mm-hmm. su ma juumal parce que tardaahu nahu maa ngi xalaat waaye gisuma ko fenn wa an acmala saalixan tardaahu wa adxilni bi rahmatika fi ibadika salihin alaysa kadalik isan isan idan wa an amala salihan tardahu yes léegi tey ñu jeex de aca ñaari ñaari ñaari lettre ñoo des non non mën nañ dem ci beneen di la next letter next word dood bood ci daa waxaat ko an dalalatihim hmm. an dalalatihim an dalalatihim mm-hmm. an dalalatihim that after noon sakina uh, another word excuse me mm? another word maghdubi maghdubi yaa ngi nelaw de yaa ngi nelaw kay an dalalatihim baax na wa ma anta bi haadil umya an dalalatihim bu ko yàq hmm? manduudin baax na de imam manduudin baax na yàlla nga waxoon oh pour man maxduubi nga wax oh manduud baax na kay baax na kay mhm. baax na kay ci surat eh, al waaqia baax na de wala nekkul ci suratu Waaqia nekkul ci suratu Waaqia nekk na ci suratu Waaqia nekk na ci beneen saar nekk na ci surat euh, Hud tamit wala nekkul ci suratu Hud non non manduut baax na dama foog ne magduub nga wax waaw min si jiil min si jiilim baax na man dóot baax na baax na de baax na di yéen déedéet pare guñ di man dóot wa talxi man dóot man baax na déedéet pare guñ ci kii baat man yëkkati yëkkati ma de wala yaa ngi nelaw ok man man dalla da dalla ah okay let's go to tanwin then now tanwin daad after tanwin mm fatimat after tanwin Uh, jeexelu da the the the how do you call it the last part of surat ah waxaat ko makaanan dayiqan mm-hmm. makaanan dayiqan yes yes but do waaw tanwin yes you're very good makaanan dayiqan maa ngi la bëggoon a dimbale sax waaye maa ngi la bëggoon a dimbale noonu am na bu ma doon wax boobu dina la kii makaanan dayiqan wa idaa ulqu minha makanan dayiqan muqarranina da'aw hunalika subura the last ayat of surat maa ngi doon non non ñu ngi doon maa ngi doon xalaat the last part of suratu abasa the last part of suratu abasa wala suratul a'ma musfira daahika nan la ko yàlla waxee waxaat dimbale ma nu mu ko waxee ye musfira daayika do aaya bi commencé wul foofu dama bëgg nga wax ko mu mu mu mu mu kii with the rules hmm? allahuma salli ala rasulillahi fatima dimbale ko xaw ma am ci kaw laa nekk wala suuf laa nekk. <laughs> Euh, mus euh, mus naan foofu dafa sori bàyyi rek ma kii ko wujuhun wujuhun yawma idin musfiratun daahika mm-hmm. oh very good masha Allah the last word the last word we're going to zalim well, the last, last is the last letter but in the last word okay mm-hmm. min zahir. min min zahir. very good. ak one more word. that's the tanwin. That's the tanwin. I need. <laughs> worry. I'm the, one <laughs> governing here. Very good. You're doing good. But one more word for min for for tanwin for for for I mean. Leicester og Mm. Mm. Ah. ok min min min zahir gi nga wax sax laa xamul fu mu nekk. mun nga ma cee dimbale. did I say min zahir? tan the tanwins. nun sakina bi nga wax parce que yow léeg-léeg danga may kii quoi. danga may danga may waaxu uh-huh. quoi. but it's still good though. no but I need I need a word yes min zahir baax na be but I need a word in the Quran. Mm, parce que man parce que boobu falaa takunanna zahiran lil kafirina xam naa ko falan akuna zahiran lil mujrimin ala rabbihi zahira ba'da dhalika zahir Oh, waaw waaw yes am na zahir am na wa ma lahum minhum min zahir yes you're right yes yes I just want to make sure uh, ok uh, eh, ok bu fan la nekk wa ma lahum min wa ma lahum wa ma lahu minhum min zahir fu mu nekk déedéet man damay I was I was bringing the min zahir ci nekk ci sama bopp hmm? yooyu mi mi ngi ci soratu saba mu ngi ci suratu mu ngi ci suratu saba very good déedéet yow sax indi I was trying to locate it ok am uh, na ok yanzuruna tamit hmm? ok now now the tanwin you said what tanwin mm mm-hmm. قليلا ما تذكرون Huh? قليلا kii fu Ajaa Njoba. Yeah, <laughs> that wasn't a good one. <laughs> Okay, masha Allah. Man <laughs> dama foog ni yaa si waaw classe bi ëppoon naa raté. léegi bu ah acca tanwin. Mm-hmm. Mm-hmm. zalila. yes you you said it allah. zillan zalila lan zalila boo koy liir fexeel nga appliqué waale ko instead of lan ne lan zalila ok ana va foofu foofu zaala loolu zaala te même bu fekkoon ne vaala sax amu fa amu fa amu fa inna bokkul ak in mhm. inna zalzalata saati kooku zaala razin Mm-hmm. ok Adja Ndioba comme yaa ngi soog a si acce joxel benn fexe nga wutal benn euh, xabar tanzilum min rabbi loolu voi la loolu za la ñu ñu we toog na ba voi tanzilun bopp yëpp non non non non non non non non ñu ngi ci the last letter tanwin walakin zalamu bat loolu loolu loolu nun saakina la aja baax na bat nun saakina la ñu ngi ci za mooy the last word the last letter gis nga maanaam wóot baat yi nii soxlawuñu any every word here we just need the first letter of the word oh, hmm? oh. parce que miim miim du du letter miim lan la by now by now we have to be able to identify all the letters mim mim lan la lip lip letter la no no no no we're not talking about uh, lip letters we're talking about uh, oh, okay. we're talking about uh, huh? yes no no we're talking about the letters no no mim is not iqlab letter we're talking about the name of the letters in oh, accordance when I mean they, when when they are after when they are after noon sakin or tanwin Parce que oh. when you talk about lip ladder is we're talking about hmm? fii nii melo yi ñuy wax fii mooy melo yi nga xam ne xam nga dafa waxoon ne xaqahu wa mustaxaqahu mustaxaq la ñuy waxtaanee fii maanaam lettre yi nga xam dañuy affecté nun saakina wala tanwin miim ci nan lay affecté nun saakina wala tanwin idgham with gunna ma sha Allah now fi ne now now we are talking about the ikhfa the 15 letters of ikhfa the oh. letters which hide the noon or the tanwin so we are at dha bi ñuy waxee dha nag joxe nañu ay exemple ci dha after noon sakina wa nga ci yanzuruna ak eh, yeneen yi waaye but now we are talking about dha tanwin have one? Yes, please. Go antum tanzuruna. Yaa ngi ci ba léegi tanwin, yaa ngi ci ba léegi nun sakina. Mhm. No, we're talking about tanwin now. You forgot? Okay. You brought us one tanwin, just one more tanwin. Walakin zalamu. Walakin zalamu, yaa nun sakina ba léegi. Huh? damaa fàtte jox naa la boobu ba pare. te boobu noonu saakina la. Mhm. tanwin tanwin. Hmm? ok help us then. ah man man wut ndimbal de. Hmm? man maay wut ndimbal de man maay wut ndimbal de ayca bisk bii rek moo ñu dese. bii rek moo ñu dese no das nun das nun nga ko <laughs> nun sakina <laughs> okay guess <laughs> eh, kay mi ci alxuraan eh? Eh, alxuraan alxuraan ni mu bëree alxuraan laa wax ni mu bëree ma ne alxuraan ah. ni mu bëree tooñkat. ni mu bëree lañ. tooñkat tooñkat hmm. zulma bi ne loolu moom mooy tooñ waaye. Hmm. alxuraan laa dafa bëri ay tooñkat. dafa bëri hmm. so loolu loolu doesn't doesn't say anything. allahuma salli ala mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallam xarsa mm-hmm. hmm? qawmin nga ne lan zilzala xarsa qawmin Ah, yes xarfa qawmin zalamu anfusahum qawmin zalamu tooñkat yi hmm? bari tooñkat uh-huh. alhamdulillah hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam lii nag moom niñ ko jàngee nii yomb na waaye daanaka atte bu ci nekk kalaasu boppam la waroon a jël mm-hmm. li muy firi mooy buñ paree rek ñu koy nafar di ko nafar di ko nafar di di xool fexe ba xam ne juróom benn lettre yi ñooy lettre euh, ixfa astaghfirullah izhar mooy the throat letters dégg nga hamza man texte bi sure I did one I have I don't know if I sent it but I will send it anyway. the uh, you have letters in the Arabic alphabet, and they all have to do with nun sakina. They all have to do with tanween. Then uh, six letters out of them are huruful izhar. fu ñu fekk tanwin wala nun sakina dañ leen di feeñal ha ayn uh, hamza ha ayn ha ghayn xa juróom-benni lettres juróom-benni lettres ñooy lettres idgham ya ra mim lam waaw noon yarmalun two of them amuñu gunna muy ra ak lam four of them they are with gunna ya noon mim waaw yuminu wala yanmu one letter mooy harfu iqlab jàllar bi nun sakin or tanwin into the sound of mim but with ikhfa and ghunna mooy ba so these are 13 letters the remaining letters are the letters of ikhfa ñoo nekk ci bayt bi the first letter of each word of this bayt sif la thana kam jaada shakhsun qad sama dum tayiban zid fi tuqan da zalima yi bu ko nit mokkale bu leen nit mokkale luñ la laajate ci dégg nga euh, nun saakina tan wi danga koy xam waaye day tax booy jàng alxuraan it ngay bàyyi xel ne ndax man dama war a feeñal nun saakina wala tan wi wala waruma ko feeñal suma ko warta feeñal nan laa ko war a jànge ndax dama koy nëbb yaa ngi dégg wala dama koy jàllar bi wala dama koy doxam lu bàyyi lu mat a bàyyi xel su ma koy idgaam ndax dama koy idgaam with gunna wala without gunna loolu yëpp eh, ñu ngi ci bayt yi al imam al jamzuri rahmatullah alayhi jox ñu hada wa sallallahu alihi wa yàlla dimbale ñu yàlla dimbale Palestine yal na yàlla dimbale julit yi لي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع